aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yi nuy uh, seetaan fu ngeen mënti nekk ci biir réew mi di Sénégal ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo bu gën a sell ci lislaam muy asalaamaaleykum di leen ziyaara di leen balu xaq te di leen balu xaq di ñaan yàlla suñu borom jégal ñu di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides di ko ñaanal mu gën fee yàgg lool te gën a wér waaye di ko ñaanal mbokki jullit yëpp mbokki yéen a ñuy teewlu ci seen chaine bi nga xam ne moom moo di euh, GMK TV muy grande mosquée bu Touba ak MK TV muy Muxaddamatul Xidma fii ci euh, grande mosquée bu Touba ñu ngi en direct ngeen ñuy teewlu tey jii ci àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci muharram atum 1445 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo le 9 août 2023 ci jotaay bu am solo boo xam ne moom lañu fas yéene ànd ak yéen waxtaanee ko ngir leeral ko ñi nga xam ne ay mbokki jullit lañ ñi nga xam ne ay mbokki taalibi lañ waaye ñi nga xam ne dañoo bokk réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal rawatina ñi nga xam ne dañoo bokk ci yoon wi nga xam ne moom moo di yoonu murit mu nekk ponk bu am solo boo xamante nii daañu ci ñëw incha allah waaye balay loolu dañuy présenter ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci plateau bi laataa ñuy ñëw ci thème bi nga xam ne moom la ñu fas yéenee waxtaane mu nekk thème boo xam ne nag dafa soxal ñëpp niñ ko leeralee sànq. ñu am mbégte nag di dalal ci plateau bi ki nga xam ne moom moo di euh, président Cheikh ñaan nekk président bu tribunal départemental bu Mbacké incha allah dina ñëw ci ay ponk yu am solo yoo xam ne moo jëm ci thème bi ñu fas yéenee waxtaanee. waaye ñu dalal it euh, sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar moom it bokk ci ñenn ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liggéeyub daayira mu xaddamatul xidma te nga xam ne ñoom ñoo yor jumaay euh, Touba ji muy jumaa ju mag ji armeel yeek euh, yi ci aajowu waaye it mu feggoo ki nga xam ne moom moo di sëriñ Makhtar Kane moom bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoo yor liggéey yi nga xam ne moo jëm ci daayira mu xaddamatul xidma ak li nga xam ne moom moo jëm ci armeel yeek la ci aajow ni ko waxee sànq. waaye mbokk yi euh, li nga xam ne moom lañ fas yéenee waxtaanee mu jëm ci euh, liñ naan ku ne dund ne faatu ndax ñoom ñoo ànd ku gën a àddina rek bés da nga ñëw nga bàyyi koo fi waaye boo fi bàyyeekoo am na yoon yoo xam ne fa lañ la war a jaarale keroog ba nga gën a àddina yoon yi nga xam ne fa lañ la jaarale woon ba tey defaral la kayit ñu mën laa reconnaître fii ci réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal ñu xam ne sa nationalité sénégalaise la. nga mën fee amee carte d'identité ak yeneen ñu ci aajow waaye nit ki nit ki nga xam ne dafay bàyyeekoo wujj suñu boroom am na yoon yoo xam ne it fa la war a jaar ba kere ñu koy denc muy ci wàllum këyit waaye tamit loo xamante ni dafa jëm ci euh, ni ko lislaam jàngalee noo xamante ni yoonu murit noonu la ñuy doxee euh, muy fii nga xam ne moom moo di ci Touba nga xam ne loolu yëpp dañ cee tënku waaye muy liggéey boo xam ne dañ ciy ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor fànn googu kon ponk la waxtaanee leeral ko ñi nga xam ne. ñoom ñooy am ñi génn àddina ñu war leen a denc ñu leeral leen yoon yi nga xam ne fa la ñu war a jaar ak li nga xam ne mënu cee ñàkk ba nga xam ne bu ñu leen indee ci bërëbu sell bi nga xam ne moom moo di Touba bëgg leen denc lépp loo xam ne moom moo jëm ci wàllum kayit wala lépp loo xam ne moom moo jëm ci wàll lu ñu war a sàmmonteeg moom daañu ko matale euh, ba li nga xam ne moom moo di ay réeroo du ci am euh, ci loolu dañuy njëkk jox kàddu gi euh, sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar sëriñ bi ginnaaw boo nuyoo rek euh, ñu boolewaale ci suñ question bu njëkk mu mel ni euh, ni ma ko leeralee sànq réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal am na ay loi yoo xam ne moom moo fiy dox ci loolu lañuy tënku euh, mu jëm ci wàllum ku fi bàyyeekoo ak maanaam yoon yi nga xam ne ci lañu war a jaar ba keroog ñu lay denc waaye am na ndaje moo xamante ni amal ngeen ko kilifa yi ñu doon waxtaan ak yéen. du ma ne waa Touba rek waaye am na euh, kilifa yu bari ci réew mi ci bërëb yoo xam ne dañ fay denc ngeen amal waxtaan ñu indil ay leeral mu jëm ci loi yooyu noonu ngeen indi ay weccontee xalaat ci li nga xamante ni moom moo jëm ci ñi fi bàyyeekoo ak ni nga xam ne noonu lañ leen di denceek la ci ajo kon dañuy dañuy ñëw dañuy dañuy ñëwal rek ci euh, ndaje moomu naka la demee woon ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa teewoon ak li nga xam ne moom ngeen fa euh, jëlee woon laataa ñuy xuusaat ci biir. jërëjëf aoudu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wasalaamun ala ibadihi alladina istafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Fadlu ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di nuyu bokk ñiy seetaan yëpp di leen ziyaara di tàmbalee sunub nuyoo ak sunub ziyaar ak sunuy ñaan ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul am li taifatil muridiya di ñaan suñu borom mi dara tawul mu yokk aw fanam yokk ak wéram defal ko jàmm jàmm yaram ak jàmmi xel ak kattanu yaram ak kattanu xel ba fi mu bëgg a yóbbu liggéeyam Serigne Touba bi ak naal yi nga xam ne naal na ko yëpp suñu borom may ko mu àggale ko ci sagoom te nu ànd kook moom di nuyu njabootu Cheikhul Khadim gépp di nuyu itam kilifa yi diine yi ci réew mi yëpp waaye di nuyu bokki taalibe yi itam. ci jataay bi ñuy nuyu sunu gan gu tedd gi nga xam ne moom la ñu am di kilifa gi toog di Serigne Cheikh Niane di président tribunal bu départemental bu Mbacké ni nga ko waxee léegi waaye itam bokk ci njabootu sëriñ bi di ci ay waajuram ci ay maamam ba léegi ñu ànd ak Cheikhul Khadim bu doon tawféex ju réy ci yàlla dogal mu dajeek bu dogal bu mel nii amee. Euh, bokk gi mu bokk ci yëf yi ak taxawaay bi nga xam ne moom la am ci yoon wi ay maam amoon ko ci démb ak bërki démb day tax ñu mën a jot ci moom donte ku ñàkk jot la donte ku xat la mu mën a teew ci sunu kanam leeral li nga xam ne moom la yoon tënk ci yu demee nii yaakaar naa bu ñu fàttali ko ci xoon nañ moom ak moom ay jataay ci wàllu sëy yi takkum sëy mi ci barab bii ci jamono yi ci gannaaw ci loo xam ne lu jekke woon jekki dal ci sunu kaw la comme ni nga xamante ne bi lii ñuy waxtaane tey ni la jekkee jekki dal ci sunu kaw euh, ngir tontu sa laaj boobu nag lii dal ci sunu kaw mooy lan mooy dañoo nekk ci biirum réew Serigne Saliou dafa daan wax ne Touba ci biir Sénégal la bokk dégg nañ kàdd kàddu googu itam ci lam ñu Cheikh Mouhamadul taxa wax ne Touba ci biir senegal la bokk donte nag am na cër bu ko yàlla cërale boo xam ne xëy na du cër bu maase boo xam ne ñëpp a ko am waaye teewul nag doomu am am ab cër ci biir réew mi ci biir réew mi la bokk li tënk réew mi daf koy tënk ci yu baree bari fii ak nekkul loo xam ne lu juyoo la ak lislaam ñu gis nag ne jamono dafa dox ba àgg foo xam ne. Hmm, xew-xew yu bari na te xew-xew yi am léeg-léeg mu nekk xew-xew yoo xam ne yu doy waar lay doon euh, faatu yi bari na léegi faatu yi nii it bari na fu ne it la nit di jóge di jëm si ci barab yu mel ni yu tuubaay yi ñii ñëw it léeg-léeg buñ ñëwee duñ wax dëgg-dëgg na mbir ma deme dañuy ñëw rek déclarer te yow mi fi nekk lañ la wax rek. ci loolu nga mën a jàpp mu mel ne nag yoon tëraloon tëraloon tëralaloon na loolu ay yoon bu yàgg yàgg yàgg waaye ca jamono yooyu nag lii xew léegi dafa xewutoon ci faat gu bakkan yu bari yi ci jafe-jafe yi nga xam ne day am ci biir njaboot yi te lu ne mën caa bàyyi ko te léeg-léeg nit faatu ñu jàpp ne faatoom dafa jot rek mu faatu ndeke loxol doomu aadama dugg na ca ñu ñëw denc ko ba noppi leneen jebbiwaat ca ginnaaw wane ne moom kat ki ñu faat ba ki faatu ba ñëw bañ denc ko nii te ñu wax ne faatoom daa jot mu faatu am na lu ca xew loolu nag léeg-léeg day faral di am te bu amee yoon day ñëw sulliwaat ka faatu woon yóbbu seeti ba xam la wax lu wér la walla déet loolu nag dem bay bëgg a bari ci réew mi ci la nag nguuru Sénégal daan yoon yi nga xam ne tënkoon nañ ko ci wàllum néew nañu ko génnewaat teg ko mu nekk loo xam ne léegi dañ koy imposer ñëpp kenn dootu sañatee denc ab néew te jaaroo ca yoon yooyu te bu ñu it dal di koy def dañoo dal di woote barab yi nga xam ne moo ëpp lu ñu fay denc ci Sénégal yàlla dogal na Touba yi ci la bokkoon euh, ñu woo mairie bu tubaa woo ñi nga xam ne ñooy saytu armeeli Touba yi di Moukhaddamatoul Khidma ñu yebaloon sëriñ Makhtar Kane mi moo dem teew ca ndaje moomee ndaje def nañ ko ay yoon euh, yoo xam ne ay séminaire la ngir jàngal leen ni yoon tërale ku faatu nu muy demee nan lay fan la ñuy jaar ba denc ko ba ñu ko defee nag ay yoon ci la wax nag ne léegi ginnaaw dajale nañ ndakaaru Tiwaawoon Tuubaa Kawlax ak mboolem armée yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ñoo ëpp lu ñu fay denc ci Sénégal te loolu ñoom lu ñuy xam lay doon wax leen ne leen nag léegi kon yéen ñëpp amatu leen sañ-sañu ñàkk tënku ci lu mel nii na ngeen di doxale nii waxtu wu ne nag danañ ñëw di seet si ba xam ndax lii ñu leen wax yéen a ngi koy doxal wala déet su ngeen ko doxalee fa lillahi alhamdu su ngeen ko doxalut nag jafe-jafe boo ci amati ci seen kaw lay këpp loolu nag nekk loo xam ne lu day waar la te metti te tiis ndax jafe-jafe yi ca mën a tukkee duma ci sori président dina ci ñëw léegi mm-hmm. euh, yu metti la yu tiis la te mën naa gaar ku ne mm-hmm. ci loolu nag Euh, bi ñu demee ba war a tàmbali liggéey bi ñu ne bis sangam lay tàmbali ñu tàmbali liggéey ba mu am jafe-jafe lool ndax nit ñi bu mbir xewee jékki-jékki rek nit faatule indi am néewam fekk fi lu mu fi daawul fekk day nekk jafe-jafe su boobaa day jàppale ne ñii mu fekk ñoom ñoo tëral doxalin wi ñoo jékki-jékki soppi te waxuñ ko nit ñi ñoo jékki-jékki def nangam fekk na mbir ma def leen a tiim mm-hmm. li ñu fi liñ liñ fi fekk du waa Muxaddamatul Xidma ñoo ko doxal du waa maire yi bu Tuubaa ñoo ko doxal waaye daf leen a tiim réew mi moo ko doxal te ni mu ko doxalee ci Touba na la ko doxalee ci Ndakaaru na la ko doxalee ci Kaolack na la ko doxalee ci Louga na la ko doxalee ci feneen kon nag bu boobaa day laaj ñu ñu ñu nit ñi xam li indi soppet gi bi loolu amee nag sëriñ bi nga xam ne moo yilif ñëpp di Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal lool te may ko wér woo ki nga xam ne nag lépp luy yoon te yoon ni ko waxee léegi état moom bokk ci. mooy nit ki bu juddoo ak ba mu faatoo diggante boobu ak lu mu fi def. lu nekk day am lu mu ci seq ak yoon. mu woo ki nga xam ne nag moo jiite yoon ci département bi muy sëriñ Cheikh Ñaan mi toog. wax ko ne ko dafa bëgg mu dajale maire bi ak chef du village yi ak ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñooñu la ñu dénk lu demee noonu ci dëkk bi mu waxtaan ak ñun xamal ñu yoon yi nga xam ne ci lañ war a tënku ndaje moomee moom président Serigne Cheikh Niane mi teewee na ko procureur bu Njaareem teewee na ko mhm. maire dëkk bi di Abdoul Ahad Ka teewee na ko ay adjoint maire am itam teewe nañ ko waa Moukhaddamatoul Khidma teewe nañ ko chef yi nga xam ne ñoo nekk dëkk bi itam ñi ñi fi ñi jot a jàppandi ñëpp teewee nañ ko ndax dafa am loo xam ne ba ñu jógee ca ca séminaire boobu ëndaale woon nañ ko te mooy ne nit ki bu faatoo ci ab koñ chef du mu dëkkal mën naa bind wax ne kii fi la faatoo nangam la tudd nangam ak nangam ak nangam kon mën nañ koo denc te faatu gi amul benn jafe-jafe euh, loola la ñu àndaale woon ndax loolo moo nekkoon ca texte yi ñu bindoon waaye nag ràññale da caa am ndeke goo xam ne ñiñ fi fekk xamuñu ko woon biñ fi bi ràññale googu amee rek te ñi fi fekkoon xamuñu ko woon moom mii nga xam ne moo fi nekkal yoon mu gàgganti ñu ca gàgg ca loole jubbanti ñu ci xamal ñu ne loolu dëgg la mën naa am waaye nag ci chef de village boo xam ne nekkul ci biir commune wala nekkul ci biir chef de arrondissement. loolu nag day jafe lool léegi ndax léegi euh, bu ñu bàyyee xel depuis mille deux mille treize wala ba léegi Sénégal dafa dugg ci commune commune commune communalisation waaw mooy dëkk yëpp léegi ay commune lañu. yi ci ëpp ay commune lañu wala bokk bokk nañ ci ab commune. Mm-hmm. su boobaa nag mbir yi day soppiku ndax dañoo waxoon ne commune rek moo koy sañ mooy sañ joxe kayit bi nga xam ne ci la ñuy denc jafe-jafe boobu nag moo indi moo amoon léegi nag lañ ca tënk ca ndaje moomee waaw moom lañu ñu war a leeral tey jii ci jataay bii ñu toog ngir képp koo xam ne yàlla na dogal na mu amati ku génn àdduna mu xam ne lii du waa xet ma ñoo ko imposé nit ñi ne leen faw dangeen di def nangam. du ne waa mairie bu Touba ñoo imposé nit ñi ngir bëgg seen seen i kayit da ngeen def nangam. waaye yoonu Sénégal moo ko gàll ci kaw bépp sénégalais ngir mu war a am yàggoon nañ ko gàll ci boppi sénégalais yi nag waaye euh, forcé wuñu leen ko woon comme nii ñu leen ko forcé jamono yi te li ko indi mooy lii ma wax ci tàmbali bi. mooy faatu yi bari na ñiy jaare ci ginnaaw dem kalaame ji ne nangama ko faat bari na ñi ñuy war a sulli ji bari na te ñi nga xam ne ñoo yore àtte bi ñoom it ay jullit lañ ne di ay taalibe ne noonu bëgg sàmm itam war war ni ñu ko bëgg a waaye yoon nag jox na leen ci ñu mën a dem sulli ko faatu te bëgguñu loolu di am ñu ne nag kon nañ jël li nga xam ne mooy tax loolu bañ a mën a am. Mm-hmm. ñu doxal ko ndax yu mel nii mi ngi bëgg a bari ci réew mi. Mm-hmm. kon daal sëñ Fallou ci sar ci loolu. Mm-hmm. moo indi lu mel nii tey ñi ciy jàpp bari na. ndax ñi ngi ciy jàpp mm, nit mën naa indi am néew kaso ko ca. nit mën naa santaane ñu denc kaso fekk ko ca. nit mën naa bokk sax ci ñi dikk seere ne moom nangam la. kaso fekk ko ci. dañoo ñëpp nag mënoon nañoo moytu kaso boobee su fekkoonte ne jaaroon nañ. ci yoon wu ñu a jaar. yoon yooyu nag lañ bëgg tey jii euh, mu leer ci bopp nit ñi. ba kenn ku nekk xam lan moo cay wàllam. fan la ci war a tàmbalee fan la ca war a yem. lan moo ko ca war bu ko defee bu ko defut lan moo ko ci mën a fekk. ci loolu moo tax. mu nekk ñun ñun woon teewoon ndaje moom te yëg loolu. ñu bëgg koo séddu nag ak mboolem ñi nga xam ne ñooy suñuy bokki taalibe ba bu ëllëgee yàlla mën ñoo defal nu mucc ci ñun. waaye suñu bokki taalibe yi nga xam ne ak suñu bokki suñu kilifa yi bopp yi nga xam ne itam ñooy joxe ndigalul ñu bi. ñooñu ñëpp ñu mën a mucc ci jafe yu mel noonu. Euh, jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne. def nga ko mu jëm ci ndaje mi nga xam ne amoon ngeen kook kilifa yi doon waxtaanee rek lu jëm ci ni nga xam ne noonu la war a dencee ak euh, ni nga xam ne noonu la yoon bu Sénégal tënkee ko nga xam ne benn jafe-jafe mën na cee bañ am ndax ni nga ko waxee rek nit mën naa dem denc ba noppi yoon dal dal ci kawam ay sanction fekk ko ci ba mën koo tëj kaso te loolu yëpp yaakaar naa bu leeree askan wi rek danañ xam bu baax a baax yoon yi nga xam ne ca la ñuy jaar ba njumte yooyu yëpp mën leen bañ a bañ a dal xam naa ci côté boobu sax la ñuy dugg euh, ak le président du tribunal euh, départemental bu Mbacké muy président Cheikh Niane président dégg nga sëñ bi lim leeral sànq euh, ci njëlbeen sax ñu koy wax ñu ne dañoo nekk ci réew moo xam ne mooy Sénégal loi yi dox dañ naan loi moom lu général la buñ ko xasee voté moom ci ñëpp lay dal. donc Touba bokk ci réew mi am na loo xam ne buñ ko watee xasee dogal ci réew mi rek dañ ci war a tënku léegi ñu bëggoon a xam euh, yoonu Sénégal lan lañ tënk ci li nga xam ne moom moo jëm ci ñi génn àddina yoon yi nga xam ne ci lañ war a jaar ba deneen ci ko ak yi nga xamante ni tey ak njumte bu ci amee wala sàmmante ak moom tey yoon mën nañ la cee euh, teggi daan ba kaso war na la cee mën a fekk. Ah, euh, jërëjëf ñu ngi tàmbalee suñuy kàddu ci nuyu ñiñ fi fekk ci plateau bi. Mm-hmm. Euh, di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. di la sant bu baax nag ci dalal bi ñu dalal. jërëjëf. Euh, ci barab bu tëdd bii di nuyu di sant di gërëm sëriñ Abdou Lahad Bousso ni mu ko waxee léegi sëriñ bi yàgg nañu boole liggéey mm-hmm. di sant it sëñ Maxtaar moom it macha allah rafetlu nañ liggéeyam ak xelam ñaan. kàddu yëpp yu ñu fi yëkkati suñ boroom def ci tawféex ba liñ ci jublu ci nit ñi mën ko dégg mën ko jëfe jariñoo ko yàlla defal ñu ko ci barkeb sëriñ bi di ñaanalaat bu baax ni ni nga ko wax sa njëlbeen sëriñ Mountakha mi tey jiite yoonu murit suñ boroom yàggalaat ko fi loolu te wér di nuyu nag kilifay barab bii muy fii ñu nekk tey ci barab bu tedd bi mboolem kilifa gu fi nekk rek mm-hmm. ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ziar di la nuyu di rafetlu it liggéey bi fii nekk ah, ni nga ko waxee léegi rek euh, noonu la demee waaye sëñ Abdul Ahad Bousso bi ma ko dégloo dafa indi contexte bi moom martelé lool ci ni mu ko indee rafet lool it mën nañ ne campé na sujet bi ci fànn yëpp mu leer nañ nañ nañ wax dëgg yàlla euh, déglu naa ko bu baax kon ñu ngi rafet lu baax ni mu ko indee ak ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu indee daanaka jataay ba mooy waxtaan bi nga wax réunion bi ñu defoon ci maire bi euh, ak sabab ya ak ña fa nekk lépp kon sëñ Abdou Lahad macha allahu rabbi ci kàddu gi ak intervention bi Euh, li nga laaj nag effectivement sëñ Blaat kon man ci waxam laay sof hmm. mooy Sénégal euh, ni mu ko waxee rek dafa nekk ci am réew hmm. ci ci Touba dafa nekk ci am réew muy Sénégal hmm. Sénégal nekk ci benn àddina benn benn seq ay réew ñun nag Sénégal bi ñu yor euh, ay loi tënk ko ñu ànd booloo tëral ay charte di ci dox yàlla dogal nag tey fànn bi ñuy waxtaanee muy yan loi ak yan yoon mm-hmm. la Sénégal tëral ngir képp koo xam ne ni bàyyi ko nga faatu nga mm-hmm. ñu mën laa denc te jafe-jafe du am mm-hmm. ci ñala denc ak yow mi ngi denc ak denc ni waa yëpp lépp rafet loolu am na benn loi de 1972 portant code de la famille euh, moom moo yor wàll woowu loi boobu nag bi nga xam 1972 lañ ko voté. mu yor lépp loo xam ne nii ci doomu aadama la jëm ci wàllu dundam diggante dundam ak faatoom. jaar ci digg bi lu mel ni ab sëy takk sëy. am nañu yàlla wërsëgale ñu am soxla diggante bi am na ñu ko dul am. waaye wax nga ko léegi ku dund moom ah da nga faatu. kon diggante dund faatu moom faw mu am. Mm-hmm. ba mariage amee ci diggante bi it ñu xam ne lu yàlla. tudd la ci nit ki. Mm-hmm. kon bu ñu tënkee doomu aadama rek bu ko yàlla xasee bind rek du juddu am. Mm-hmm. kon dee dina am. Mm-hmm. Euh, sëñ Abdoulaye wax na ko jot nañu wax ay mariage ay jamono ak yu bari waaye tey li ñu indi moom mooy faatu gi. kon dese boobu maanaam bu nit xasee faatu faatu boobu nag bu xasee am nan la def. ba denc ko ci jàmm ak salaam te jafe-jafe du am. ak it jàppandale ca mën a am diisaay bañ am li ñuy wax lenteur administrative mhm. mu bañ a am li may njëkkee nag mooy ah li tax faatu gi war a tegu ci yoon maanaam mhm. diggante faatu gi ba denc gi mhm. faatu moom suñ boroom da koy yor denc gi nag ay doomu aadamaa koy def ñi fi nekkaloon dëkkandoo yi ak mbokk yi diggante boobu nag jafe-jafe bañ a am foofu la ñuy waxtaane tey léegi li may njëkk kon mooy bu faatoo bu ñu yëgee ni nit faatu na kan ak kan moo ci am wàll yaakaar naa li ci njëkk mooy yëgle faatu gi déclaration nit bu faatoo ah danañ dugg ci kër yi ruqu ruqaan yi wax ne ah diw faatu na mbokk yi mën a ñëw jàpp ci am di jàmm yi ndax kenn rek mënut a toppatoo ab néew xëy na ci liñ foog déclaration boobu nag bu nit faatoo wax nañ ne ñi ko jege mbokk yi direct bàyyi ndey ak lépp laa luy mbokk rek. wax nañ ne képp koo xam sax nag yoon da ko yaatal am na information bu leer ak xam ku leer ci aji faatu ji. war na koo mën a déclarer. waaye ñu joxaat beneen pàcc bu am solo ku ñuy wax chef de village. ak délégué de quartier. li tax délégué de quartier bi nag du ma ci sori day dafa nekk ndawul chef de village bi. kon bu ñu nee chef de village rek yóbbuwaale na délégué de quartier. kon chef de village boobu. wala parents yi mbokkam yi. bu ñu yëgee ne diw faatu na ñoom dañ koy déclarer. am na it ñeneen ñoo xam mën nañoo déclarer. muy structure sanitaire yi. maanaam bépp kër docteur bu ñuy fajoo. bu fa ak faatu amee yoon gàcc na ko moom it mu yëgle ko. Ah, police judiciaire. maanaam police wala gendarmerie. ñoom ñoom it ku ci nekk. léeg ñuy wax la ak faatu. Mm-hmm. moo xam accident la moo xam faatu goo xam dafa xaw a lënt laaj enquet ñu dugal ci police wala gendarmerie suñ ko ci xasee dugal wala mu dugg ci rek yoon joxe na ko également ndigal mu yëgle faatu gi kon boo seetloo mbokkam yi sañ nañoo déclaré faatu gi chef de village bi bi nga xam ne nii wala délégué de quartier bi mu nekkoon am ak ñëpp jàmm ñu xam ko fa sañ nañ ko déclaré hôpital bi nga xam ne nit faatoo na it directeur hôpital ba wala ñi yilif hôpital ba mhm. sañ nañ koo déclarer mhm. waaye police wala gendarmerie bi yoroon enquête bi bu dee faatu gu am lënt mhm. bañ ba nekk seen loxo sañ nañ ko déclarer ñun ñëpp nag buñ koy déclarer officier état civil lañ koy déclarer ndax moom nag la yoon may mu bind këyit wu officiel woo xam nit faatu na bala maa sori ci officier boobu nag damay ñëwaat seen place bu li mu waxoon que ni loi Sénégal ñoo jël commune. Mhm. jox ko armeel si cimetière commune moo koy moo koy moo koy gérer. Mhm. gi ñu nekk nag wax nañ ko léegi dafa spécial ñun ñëpp ñu ay taalibe bi Sëñ Touba. di mhm. njaboot sëriñ bi. fas yéene xool nag loolu lépp nan lay ànde ba ni ko sëriñ bi bëggee ah loi bëgg ko ñu daje ci digg bi ba juboo ci. du am benn rëq-rëq. wax na ko léegi sëriñ Mountakha mi fi nekkal Serigne Touba tey moo joxe ndigal bi mu yëgee ne réewum Sénégal it ni ko Serigne Blaat waxe moo wax ne nañ def nii ak nii ci ubbikoom mhm. ak dëppoo ak yoon ak bañ kenn am gàllankoor ak loraange mhm. ak jafe-jafe ëllëg ci ab suul mhm. tax moom it mu woo njabootu boppam gii waa xit ma bokk ci man mi ma bokk ci ak ñeneen ñu xalaat ci ba mu dëppoo kon bi ma waxee ñi nga xam ñoo sañ a waxit ne ay cimetière commune moo koy yor ci wàllu loi. Touba nag dafa spécial tax daayira Muxaddamatul Xidma ah depuis Serigne Saliou bu dee ci sama xam-xam leer na. Mhm. ñu dénk leen ko ñu ci lëkkaloo ak waa mairie lépp nag ci lu rafet. di mhm. sottante xalaat. Mhm. ba dara mos ci yëngu. moo waral kon ñu mën a daje waxtaanoon. léegi nag euh, dafa mat a ràññale. sëñ Blaat juñu na ko léegi. Euh, faatu mën naa doon ñaar ñaari mbir yoo xam ne nii yu yu yu yu yu doon. Mm-hmm. am na ñoo xam ne ni mën nañoo faat faatu ko amul benn jafe-jafe. Mm-hmm. waaye nag léeg-léegi am na lu ñuy wax mort suspect. Mm-hmm. wala daal ki ñu gis mu dee gis nañ ay mandarga. ay signes yoo xam ne nii. wala ay mandarga yoo xam. ah ñaaw nañ njort ci dee kon ñaar yooyu la te gis liggéey bi ñuy def. ak gataay bi ñuy def. ak réunion bañ def keroog. liñ ci jublu rek te yoon jublu ko ci. ndax yoon dafay nekk di gindi ak a defar waaye yàqut. lim ci jublu moom yoon ak ñun ñii toogaat fii di waxtaan. nga xam ne sëñ Blanc wax na ko lu ci kenn ci coobare wala bakkanam wala sañ-sañam ci la ñëw tëral dara lu bees déedéet. lim ci jublu yoon jublu ko ci ñun ñu jublu ko ci. mooy suñuy kilifa ak suñu mbokki bopp mm-hmm. ak suñu dëkk bii ñu fexe ba worma yi fi nekkoon sëriñ bi taxul mu sanc dëkk bi mm-hmm. ñi fi bàyyi woon ba ci kii fi nekk yàlla na fi yàgg te wér worma jooju di dox boobu benn la ci mm-hmm. ñu ñu waral jotaay bi am beneen bi sàmm aar suñ kilifa yi ak ñëpp ñoo xam deele nañ te war a bokk ci borom bi ci njëkk ci côté wér gi yaram dafa am solo. am na lu fi jaaroon at yee sa ginnaaw yàlla bu mu fi amati muy Covid Covid bi mu fi amee gis nañ ne kilifa yu bari ci diina ak ci aara. ak ci autorité yu mag yi ci réew mi. bi ñuy faatu faatu gu bari gi ñu gëstu càmbar. xam nañ ne ci levée du corps yi daan am. ci hôpital principal walla ci armeel wala ci njaal. la leen Covid bi wàlle kon nit mën naa faatu. ñu woyafal jëmm ji fekk am na jàngoro ju ne ci moom te ñoom dëkkaloon xamuñu ko médecin amu ci yoon wala dara ki koy sang mu wàll ko sëriñ bi koy jiite di ko jullee mu wàll ko wala bu sëriñ ba demul armée la ña ñëw ci këram di ko sant ka gërëm di ko nuyu wàll ko jàngoro ji ne woon ci néew kon problème mu santé publique nekk na ci problème mu ngi ci wér-gu-yaram nit ñi nekk na ci kon muy am solo ndax dama koy faral di wax suñ borom bëggul ko sànq ak dundam te bañ a sànq sa dund bokk na ci. wàllu wér-gu-yaram ak aar sa bopp. kon benn ñu beneen bi sëñ Abdoulaye wax na ko muy boo defee loo xam ne nii a ah, waroo koo def. réewum loi teg na ne ku ku def loo xam ne nii dëppoowut ak li waroon am. ay daan mën na caa am te ñun ñii de bëgg nañ suñu kilifa yi bëgg koo xam ne nii. déggal leen bu ñu sañoon benn yaraanga. wala genn daan du jëm ci ñoom. Mm-hmm. ba ca topp wax naa ko te moo jiitu moo mujj muy ma Touba dafa dafa dafa am worma. Mm-hmm. ñëpp xam ko ba état bi ci boppam xam ko ñun ñi fi dëkk rawatina. Mm-hmm. kon sa njiit sa kilifa doo ko bëggal benn yara. moo tax nag sëñ Abdoulaye wax na ko ñu suul ba noppi. ay nit jaar ci ginnaaw ju ñu ko ko léegi. ndax dañoo xam. ne kii kat li ko faat. ay dóor la wala poson la wala yeneen sabab yi doomu aadama la ñu rob ko Tuubaa ba noppi ak wor ma dëkk bi ni mu mel ak sëriñ bi ni ko yàlla warmaale ñu ko fay sulli di ko génne di ko yóbbu di xoolaat donte yoon maye na ko ñun gënaluñu dëgg la léegi nag bala ngaa def nag loo xam ne nii day day nuru xotti war ma mhm. donte yoon ko santaane ah nga prévenir maanaam nga xaw ma nu ñu koy waxee. fagaru ba mhm. ah loolu du am. Mhm. kon yaakaar naa bu ñu seet kon. ñetti mhm. point yëpp wàllu wér-gu-yaram yu jar na ko ñu teg ko ci sa ay charte ak i yoon. wàllu aar sa bopp sa digganteeg say luwaay réew. ba duñ la jàpp yóbbu ne la da ngaa suul lee ndekete ayib am na ca. beneen biir war ma ëpp njariñ ne ëppul ñu solo ñun ñëpp ñun taalibe yi Sëñ muy dëkk bi. ñu bañ di suul kenn di ko fi sulli mhm. kon ponk ñetti ponk yi rek jar na kon ñu fes fas yéene mhm. dëppoo ak yoon mhm. moo tax ma doon wax ne sëñ Abdou Lahad campé na contexte bi waaye man laa rek li nga xam ne nii moom lañ ci jublu dëgg-dëgg di ko ci moytu mooy lii léegi nag ma dugg dëgg-dëgg nag ci sujet bi carrément ci procédure bi procédure bi c'est très simple Euh, dafa am benn article bu ñuy wax article soixante quatorze. Mhm. bu code de la famille. Mhm. moom lañ tiitre maanaam moom lañ moom lañ tënkee ne. Mhm. moo tënk lépp loo xam wàllu suul néew bu faatu. néew néew suul suul ku faatu rek néew. loolu la dafa ràññale. ne bu fekkee ki faatu dafa nekk ci biir ab commune. wala chef lieu d' arrondissement. sëñ wax na ko 2013 ba léegi. dañu dugg ci communalisation. gox-goxaan yëpp ay commune lañ. léegi nag képp koo xam ne nii ci biir commune bi. wala chef lieu d'arrondissement bu ñu jëlee Touba gi ñu nekk tey ñu joxe fi exemple ndax ñoo tax ñuy wax. yaakaar naa arrondissement bi ëmb na commune de Touba Mosquée. commune de Missira commune de Ngay ak commune de Dala Ngaaw ak commune de Touba Fall. moo mm-hmm. jërëjëf sama muy juróomi commune. Mm-hmm. ci arrondissement bi. ndax ñun Touba la ñuy wax tey kon commune yooyu yëpp nekk ci biir arrondissement bi rawatina nag commune bii di Touba mosquée officier état civil rek rek rek la yoon may bu nit faatoo mu joxe ndigal nag laa wax ndigalu suul yi ndigalu suul yi maanaam bind këyit autorisation waa waaw autorisation bi mm-hmm. kon mën naa ko wax ci tubaab bala ñu yàpp ne Euh, kilifa yi sañatu ñoo joxe ndigal déedéet kon autorisation bi waa permis mhm. maanaam permis bi nga xam mooy këyit wiñ ko war a suule mhm. officier état civil bi nga xam ne nii mhm. euh, ci commune tubaa lañ nekk moo ko sañ def foofu nag dañ fay jiital Serigne Abdoulahat Ka mi premier officier état civil di premier magistrat de la ville ah, sëriñ bi teg ko fi moom moomu mooy ki nga xam ne nii moo ca jiitu waaye nag am na ay adjoint Mm-hmm. ak ay officiers délégués. Mm-hmm. ñoo xam ne nii da leen a jox dara jaam jooju. Mm-hmm. ñu koy saytul liggéey boobu. kon lépp lu jóge ci biir commune bi lu ne ci biir commune bi. wala ci juróomi commune juróomi commune yooyu ci arrondissement bi. waa maire yi muy officiers yi ñoom ñooy signer permis d'inhumer bi. léegi nag article quatre soixante quatorze boobu nag beneen xaaj bi ci toppaat. ndax ñetti xaaj la ñetti pàcc la moom article bi. deuxième pàcc bi. dafa wax ne nag en dehors des communes. bu xasee génn commune. wala nekkatul ci biir arrondissement bi te bàyyi sëñ bi la wax na ko lu jafe la léegi. chef de village yi. ñooy bind permis d'inhumer bi autorisation bi ñoo koy joxe léegi nag ma leeral ci chef de village yi Touba yi ndax keroog sëñ Blanc wax na ko dajale nañ leen alhamdulilah waxtaan nañ ba déggoo ñoom dañoo am cër bu rëy ci loi ndax nañ organiser administration bi. président de la république moo jiitu sa kaw. di jaar ci premier ministre wala gouvernement am. Mhm. di ministre ci tënk gouverneur préfet. Mhm. sous préfet. ba ci chef de village bi. chef de mhm. village institution la. ku yoon jox cër la. mi ngi ci organigramme administration bi. kooku dama bëggoon mu leer. Euh, code de la famille bi it. muy loi de bi. joxaat leen tur bu am solo. ci article 67 bi. ne ñoom seen jëmmi bopp sax. wax naa ko léegi ci njëlbeen dañoo war a déclarer décès yi. décès yi hmm. bu ku faatu xam ci moom information yi. Hmm. dañu war a dem ba ca mairie ba déclarer ko kon institution lañ bu am cër. Hmm. kon chef de village Touba yëpp nañu xam ne seenu liggéeyu démb. tey la gën a yees tey la gën a dëgër. tey la gën am Pastef te tey la ñu leen ci gën a xaar. muy mm-hmm. fexe ba lëkkaloo ak seen délégué de quartier yi nga xam ne nii gox goxaan yu ruqe yëpp ci ci ci village bi ñoo fa ne. Mm-hmm. te yaakaar naa tey ku faatu am na délégué de quartier boo xam moom yëg na ko. Mm-hmm. délégué de quartier boobu bu ko yëgee dana ko wax chef de village bi. chef de village bi nag bu ko xasee ko wax moom day def déclaration bi man da koy bind. d'ailleurs sax am nañ ay formulaire ay imprimé yoo xam ne nii. danañ ko tas ci chef de village yëpp ba ci waa Baqiya mhm. ba ci waa daayru xidma ñoom ñëwoon ci euh, euh, réunion ba te yor féetewoo armeel ci ndigalu sëriñ bi mhm. ñu yor imprimé yi ba nga xam na ku ci nekk dana xam ne kayit yi mhm. moom lañ war a defee nii donc chef de village bi bu faatu gi amee ñu wax ko ko moom am na formulaire bu ko jox moom lay remplir jox ko parent maanaam mbokki ki ko di ki ko yëgal faatu ndax ku faatu moom doo doo lijjanti sa bopp dañu lay lijjanti ñooñu la jox kayit bi ñooñu nag am na ñaari yoon hmm. yu simple te loola keroog ba ñuy def réunion ñun ñëpp bokk nañ ci dégg ko hmm. mooy nañu dëppoo yoon waaye nañu woya falal waa dëkk bi ba kenn du am sa néew am sa naqar indaale ko hmm. ñaar fekk fa jafe-jafe ak yeexaay ak blocage day diis kon ñu fexe nag ba dëppoo yoon te dara du diis dara du jafe alhamdulilah Euh, monsieur le maire Abdoulahat Ka mhm. euh, ci xam gi nga xam dëkk bi mhm. ak di taalibe Sëñ Tuubaa ànd ko ñun ñëpp ak waa Xidma mhm. am na bureau bu mu créé yàgg na loolu waa Xidma danañ ci ñëwaat ak waa ñu yor Bàqiya ba mu créé ci buntu ya mu bokk ci bàq ya nga xam ne ñoom dañ fay nekk di liggéeyal sëriñ bi ci biir bàq ya waaye nag kayit yooyu ñuy wax bu egsee ci ñoom sëñ maxtaar dina ci ñëw danañ ci am taxawaay bu rëy ba jafe-jafe du am yeexee du am léegi kon de village bi bu bu joxee mbokki ki faatu kayit yi ñu am ñaari yoon su la neexee nga dem directement bàq ya fekk fa ñafa fa bi teg ak monsieur le maire teg leen fa nga jox leen kayit yi ñu daal lay suulal sëb néew léegi su la neexee bu la fekkee commune ba moo la gën a jege. Mhm. nga jël këyit chef de village bi dem ba ca commune ba. Mhm. waa commune bi it signé la këyit. Mhm. nga dem présenté ko ci buntu bàq ya. ñu ubbil la ba mu yaatu. ànd ak yow defaral la nga rob ñibbi. kon yaakaar naa jàppandal am na yombal am na. ndax nit ñi dañ jàppandal rek commune ba rek nga mën a dem. pour def ko. maanaam commune bi sole ci ñenn ñi. Mhm. embouteillage bi xataa xataayu dëkk bi. Mhm. moo tax nag monsieur le maire ci boppam wut ñu ko ñoo xam ne doy nañ ko. Mhm. te alhamdulilah fekkoon nañu nekk ci daayira mu xam ne xidma di ay taalibe sëñ Tuubaa yu bëgg war mooy dëkk bi mu wóolu leen def ay signature yu bare bare yaakaar naa bu ma juumut bis bu jot léegi dana fa yónnee cent ba deux cent signature sëñ Maxtaar dina ci ñëw ngir bañ rek nit ñëw sa néew taxaw. Mm-hmm. chef du village jox la këyit. wala it mu faatoo woon mu maanaam mu feebaroon nga yóbbu ko mm-hmm. hôpital mu entré fa. Mm-hmm. comme ni koy waxee ci wolof. ah suñu borom moom ko ci coobareem. médecin bi defal la moom it certificat médical. boobaay su la neexee it. nga jël certificat médical bi sax. bañ a jaar ci chef du village ba. indi ko directement it ci commune bi. officier bi signal la wala it nga dem directement. te ki nekk ca bàq ya wan ko certificat médical bi moom it mu defal la ab kayit signal la ko nga dugg rob kon nga xam ne kon yaatu na lool woyof na lool dara desu ci bu ma koy tënk daal chef de village bi ci boppam ku faatu gox ba la dëkk am na délégué de quartier war na ko mën a yëg te yaakaar nañu tubaab ñëpp xamante ci quartier yi buñ ko yëgee chef de village bi danaa la xaatimal aw këyit jox nañ ko jox nañ ñoom ñëpp ay këyit yu ñuy remplir nga dem directement bàq ya bu dee moo la gën a jubu mm-hmm. am na ko fa maire bi teg ak sëriñ bi mm-hmm. jox nañ ko ay signature yu bari yoo xam mm-hmm. boo ñëwee mosuñu nga dugg doo fa def sax daanaka diggante bu gaat am na nga bëgg bu dee maire bi moo la gën a jege boo jógee ci chef de village bi aku këyit bi mu la jox nga dem ca mairie ba ñu defal la këyit bi nga dem robi bu dee la la la la la ko fa téye mu sab malade ba xëy faatu mhm. médecin bi dana la defal certificat mhm. nga indil ko waa euh, bàqi wala waa mairie mhm. ñu signal la nga dem loolu it danaa ci leer lu am solo tey woowu nag waa bàqee di signal maanaam mooy autorisation bi te waa mairie rafaatale leen ko maanaam jox leen ko muy pouvoiru mairie di moomeelu mairie waaye ñu jox ko waa bàqee muy këyit woowu ak it kayit yu officier état civil bi signé ci biir mairie bi. Mhm. c' est un frais. kenn du ci fay dara ah, kenn du ci fay nag yeneen ya waxuma tabla ya ak yooyu. Mhm. xaw ma ko waa bàqee yoo xam. Mhm. waaye li ma xam daal te wax sa nañ mooy autorisation bi maanaam permis d'urbain. kayit yu tax nga mën a suul. waa bàq ya dina ko jox ci ndigal waa mairie. wala waa mairie dinañ ko jox ci sa coobare seen coobare ñoom. kayit woowu ko dootu fay dërëm. bu ci kenn laaj kenn dara. yoon moo ko wax. am na yëpp geneen faatu goo xam ne nii jugoon naa ko mooy faatu goo xam ne nag moo xaw a gën a diis mhm. mooy koo xam ni ñu ko gisee moom néew bi mel ne dañ koo dóor wala faatu gi lënt na ci tënk mhm. booba moom bu ko soow sañ blaat ju ñëw ko mhm. ah man nga am gàllankoor yu jafe-jafe te fekk amoo fa nga jaar képp koo xam gis nga ne faatu jëmm ji lënt na wala jàpp na ne loxob doomu aadama dugg na ci gàttal. Mm-hmm. mu lu ñu loolu la ñuy wax mort violente. Mm-hmm. wala suspect. même bu dee ci kër gi na ko wax police wala gendarmerie ngir aar sa bopp. Mm-hmm. ak aar sax sëriñ bi nga xam ne nii moom nga war a woo sa kilifa gi ko war a suur. wala war a denc. boo woowee police wala gendarmerie ñoom dañuy ànd ak benn médecin. yoon may leen ñu def benn réquisition ak këyit. ne ab médecin ñëwal mu ñëw ñu bokk saytu bu dee amul benn jafe-jafe ah xel yëpp tal jàmm am su ko defee nga demaat yow ca chef de village ba wala médecin yi sax comme xool nañ ko jox la këyit nga dem ca waa bàqe ya ñu defal la autorisation bi wala nga demaat ca commune ba ñu defal la ko nga suuli bu fekkee ne am na benn lu ci ayib médecin bi dana demandé procureur ne ko man kat dama bëggoon def lu ñuy wax autopsie mhm. procureur ne ko bismillah bu defee autopsie ba mu wóor ne léegi xam nañ la ko rey hmm. ah bu dee nit a ko def ñu topp nit ka hmm. waaye néeg moom des na ko suuf ci jàmm ak salaam du am benn jafe-jafe hmm. foofa it dinaa fa dugg tuuti ndax néeg bu mel noonu faaw procureur bu police enquête ak gendarmerie ba pare ñoom danañ ko jox aw kayit wala ñu jox mbokk yi aw kayit ne leen dem leen ci procureur moom it mu signé benn autorisation waaye même këyitu procureur bu ko signé comme armeel wax da ngay jël kayitu procureur woowu ñëwaat ci mairie bi. Mhm. waa mairie defal la autorisation. Mhm. wala nga dem ci bàq ya directement ak seen ñëw. Mhm. waxoon naa ko léegi am na ñu fa mairie ba samp. ngir gaawal denc bi bañ a yeexal denc bi. ñu signal la nga dugg. kon kayitu procureur kese it li muy am am doole. bu dee ci wàllu faatu. pour ñu suul bosam rek doyut. commune bi moo yëf armeel da nga jaaral ci commune ba. wala nga jaaraat ci waa bàq ya yi commune bi teg foofu ñu signal la kon loolu day wax day day firnde rek li ma wax njëlbeen ne ah bala ngaa suul daal bu sa njort naawee pour nga ma yow ma mën a am bañ bañ a am benn jafe-jafe ëllëg ah jaaral ci fi nga war a jaar rek mooy yéegal procureur wala nga yéegal gendarmerie wala police bi la gën a jege wala quartier bi wala wala bi wala ku fa mën a nekk rek bu tiimee xam ne lii kat am na lu ci sëkk mm-hmm. ngeen ànd yëgoo ko autorité yi ñu saytu ko mm-hmm. après jox la sam néew nga suuli bu dee ko ñuy topp ñu topp mm-hmm. sëñ Ablaye doon na ko duñ fi joxe ay chiffres duñ fi nekk di tudd tenn waaye ñun ñëpp xam nañ surtout ñu autorité yi que ni ngi ciy jàpp ay nit ñu bari ñoo xam dañuy faat nit ba noppi dëxañ ko suul ko alhamdulilah nag ñun fii Touba te farlu daal Moukhaddamatoul Khidma ak seen ndaw la fa nekk. Mhm. ñu ngi ciy mucc. Mhm. mucc googu ñu ciy mucc ba heure bi nag waaye nag àddina di dox. Mhm. fan yee bu ngeen fàttaliku sëñ Muntaxa wax na ko. nee dëkk bi ñu baax ngi fi waaye nag saay saay saay ngi dugg si. kon fagaru jot na bàyyi xel jot na. ci fagaru bàyyi xel googu rek moo waral sëñ bi ah ci xelam mu rafet. ak xam moom jamono ni muy doxee mu santoon ñu liggéey bi. ne nañ ko ànd ak ñi ko war a àndal. góor mm-hmm. ah, góorgóorlu ci ba nu ñu ko bëggee Sëriñ Tuubaa bëggee ko noonu mbokki boppam yi bëggee ko noonu. Mm-hmm. waa dëkk bëggee ko noonu ñu defee ko noonu. Mm-hmm. kon euh, yaakaar naa man naa yemandi foofu. ah su fekkee am na leneen lu ma fàtte. Euh, ñu mën ñu koo fàttali mm-hmm. wala ay laaj yoo xam mm-hmm. danañ ko mën a leeralaat it mm-hmm. ñu leeral ko ñu ngi sant bu baax euh, jërëjëf euh, président Cheikh ñaan leeral bi am na solo leer na nañ leer na nañ mu jëm rek ci ni nga xam ne moom lañu war a jaar moom la kenn ku nekk war a jaar képp koo xam ne ci réewum Sénégal ndax ni mu ko leer nii daaxaar naa du loi boo xam ne Touba kese la yem waaye képp ko seetaan foo mënti nekk ci Sénégal loi bi tënk na la nga war a denc te yoon wi ca nga war a jaar ngir nga mën a denc boo ci bañee am benn jafe-jafe muy képp koo xam ne euh, génn na àddina ni mu ko leeralee euh, su fekkente ne ci euh, village yi la nekk bu amee autorisation wala këyit woo xam ne chef de village bi bindal na ko ko mu dem ci mairie ba ñu defal ko autorisation mu dem mën a denc su fekkente ne fii ci Touba nag am na ñoo xam ne waa mairie bi bàyyi nañ leen ca bàq ya ñu nekkal leen fa. boo jëlee euh, kayit woowu nga xam ne moom la la chef de village bi jox boo demee foofee ñu defal la kayit bi directement nga mën a dem denc kon loolu yaakaar naa leer na tey it yomb na euh, waaye it kilifa yi am na def nañ ci ak njàppandal gu gu gu am solo président Cheikh Niane leer yi am na solo lool kon dañuy jox kàddu gi rek euh, mi sëñ Makhtar Kane yéen yéen ay fare ci barab boobu nga xam ne moom moo di bàq ya di ko saytu saa su ne ci li nga xam ne. ñu ko fay indi ñu bàyyi ko fu ne nag ci biir euh, région bu Diourbel ñuy bàyyi ko ci biir réew mi nga xam ne mooy Sénégal ba ca bitim réew sax am na ñu fay bàyyi ñoo xam ne dañu indi fii ñu denc ne xam naa foofu tamit incha allah euh, président daañu dañu fa ñëw ndax euh, loolu dañ koy appliqué ci ñi nga xam dañuy jógee bitim réew yooyu. waaye sëñ Maxtaar yéen fii naka ngeen koy doxalee muy ci Baqiya nga xam ne daayira mu xaddamatul xidma ñoom ñoo yor saytu gi nga xam ne ni ko président leerlee. ne euh, euh, lii di armée li boo demee ci euh, commune yi lañ ko dénk waaye fii mu am benn exception boo xam ne Touba nga xam ne daay daayira Moukhaddamatoul Khidma mooy saytu loolu donte waa commune bi am nañ fa bureau boo xamante ni ñoom la ñoom ñoo leen fa teewal yéen naka ngeen nosee liggéey bi di ci liggéey commune bi nga ba nga xamante ni réeru du am ci fànn googu. bisimilah rahmaani rahim barakata xaadim rasul maa ngi nuyu jotaay bi wax dëgg yàlla. Euh, rafet na lool macha allah sëñ président yal na yàlla dëgëral. amiin euh, man damay sawar toog ak yow ndax damay damay damay jàng. ndaxte lu mel nii moom day ay cours wax yàlla mm, ay cours jël a mm-hmm. yàlla barke si Ibrahima tamit macha allah. nag jëmb ji tamit euh, daa am solo ci ma ndaxte bari na lu def muy jub moo koy nos. xam nga kàddu yi mën naa gàtt ndaxte président li wax kenn mu ci dara dara. Mm-hmm. ñun nag bi ñuy door xamuñu lii à cent pour cent. Hmm. doxin wii. Hmm. waaye jegoon nañ ko lool nag. Hmm. ñun daaw ñu laaj permis bi waaye dana laaj certificat d'essai dana laaj ñun. waaye ginnaaw formation bu nag. bi ñu ñëwee nag la gaara ko kilifa yi na leen kat mbir mi kat baaxoon na waaye amoon na fu ñu fu ñu tëb ñun. ñu waruñu na ndaxte ba fàttaliku am na année boo xam ne nii bi ñu defee rapport bi génn ko. docteur naan waru ñëw tudd ñu faatu ñu faatu li leen faat waaw waaw waaw ñu coo loolu xam mhm. naa la ñun dana ko def parce que ñun ñun xamuñ kenn kenn so formuñ formuñ ko dara mhm. ñoom suñu xelam bopp xool question yenu neex ñu koy laajte way néew bi mhm. am suñu rapport suñ suñu rapport rapport suñu taxaa mu ngi koy jëriñoo ndax jur na ay yu bare bare ci ci dëkk bi yoo xam ne moom ci la jëriñoo kon bi ñu tamit damaa rencontre ñu ma séqal liggéey bi ñu ne kon léegi nag defal la tout ba loolu sax rek waaye ñoom ndegam tubaa bi ñu ne formation bi doo jël Touba comme moo wax la bari na dëkk yooyu gis fii yëpp. ci ay kilif rek kilif yoo xam ne mhm. fi ne agsi mhm. ñu ne kon tubaa nan roy ko Touba moo tax leen jël ñépp ñu ci wàllu jëlee. Mhm. man nag ngir nag bañ ñoom bu ñu contrôle. bu ñëwee fekk ma xaw wàcc yoon woowu ñu ne ma kon nag nan jokkoo ak maire waxtaan ak maire maire ubbeeku. ñu ci waxtaan daal di nos ndegam ñu nag duñ jàpp duñ ay juriste ñu droit. Mhm. li ñu xam mooy këyit bi traduire nañ ko ànd ci arab rek ko. Mhm. xam nañ ci nga wax ñu woote nañ tamit def benn liggéey mais tamit ku jàng day yàggat. dëgg la dañoo gàggoon. Mhm. ñu gàggante. dëgg la tamit ñu gàggante dañoo nangu. moo tax bi ñu ñëwee dañoo commencé nag jéem a tegu ci yoon ku ñëwati indi permis moo xam ni ko jële ci ndawul. maire bi. Mhm. wala ci Bakhia. ñu def mooy danoo jëm ba li service war a am ci këyit. Mhm. maire tiire ko jox ko seen jëwriñ président service yëpp. Mhm. àggale ci ñoom kon service yëpp nan dem jëli seeni i këyit ci seen président jaxate. suñu am sa jaxate. kër yëpp a nga fa. ñoom nag nan góorgóorlu ba bu mbindul xamul. bu bu ñu xamul ndax ñun tamit bu ñu néew bu ñëwee dañ koy xool. moom bu ñëw nee bu ñëw ñëwee dañ koy xool. te boo nee suul leen ko ñu gis ab gaj gaj ñu ne ñaan lay war ñun. teg fa ko ñaan suñu am na gaj ko si mu ngi nii. kuy bind na nga xam la ngay bind mooy lan. ndax ñun du néew di ñëw rek ñu rek ñu daal di commencé suul déedéet fu ñu am njëkk ñi koy indi danañ ko xool. Mm-hmm. buñ koy denc ci ci margo bi danañ xool. Mm-hmm. ñi koy sang danañ xool. Mm-hmm. te xool yooyu bu ci am sikk-sikk rek ñoom sànqale mu du laal. ba mega jigéen du laal danaan ah wooteel ñi war a woo. kon ñii signé danañ xool lii signé. ku nësantal nësantal ko defee du sotti nësantal du sotti. ndaxte bu dee ko xaru la boo ñëwee buntu bi ko war a xam ne ko xaru ñoon moo tax sax duñ duñ daanaka buñ cee boole sax léegi dañ koy boole sax maam ñi nga xam ne na ay rab ndax daan na fat. Mhm. maam def test yi ko ko. ab mhm. diir 3 secondes nga am na taas wala amul mhm. ndax léegi ñu ëllëg ko na ko xam ne doo gis ay yeneen tàng. xam kii moom vraiment am na bu xewee da nga koy jéem a bàyyi xel baax a baax. ndax tamit denc daa am daa am lu muy jiitu. jéem ko dëpp dëppale ak sunna nag waaw loo yàkkamti yàkkamti moom. Mhm. li nga def da nga def moom. moom ko àndal moom dana taxaw teg ko ci sunna moom teg ko ci yoonu senegal teg ko sunna. Mhm. waaw loolu moom ñu doon ko def kon ñi am seeni ci quartier yi. Mhm. na jëli seen i seen i seen i nañ seen këyit. di ko rempli ni mu waree. bañ cee manqué benn. ndax ñun jox man tamit liste de yi ndax dama ne maire dama joxal liste bi. su ko fa indi ku ne ñun dañoo dañ faa président ñun dafa bàyyi fixe bàyyi appareil. am ngeen numéro ñoom ñëpp. waaw mu nga fa ñu ne leen. Mm-hmm. ku fa indi këyit te wóoru doyu la. Mm-hmm. wool sa village bi ndax xamuñu xamuñu ñëpp ñun. Mm-hmm. xamuñu ko wóor ko wóoru waaye ku la doyut. wala manqué ne benn signature. wala manqué du rempli maanaam amul amul carte wala amul ko kii tur yow bu sonn wool si village ba. Mhm. bu fàttee wax la bu fàttewut. Mhm. joxe ko kayitam téye néew ba néew mu dem moom. du dem dañ koy téye néew mu koy téye mhm. foo ko jëlee. koy téye loolu las nañ ko ci. daa mel nag nan góorgóorlu tamit ba bu fi kenn ñëw di fi yàgg. moo du ma def kenn ci morgue bi. ak kenn ca Baqiya. ndax ñun ñëpp maire moo la fa indi. la mooy. ñu wëraat nag ñun séqal man hmm. da ci waa ñenn dem njenne na leen hmm. ku fi ñëw ba leen koo sang margo hmm. baa ngi ne dem leen ci kon kon sàng duñ ko duñ ko jox permis ndax xam ne nu ko sànge dëgg la waaw bu fekkee dafa dafa jóg hôpital bu ñëwee leer na bu jógee say place ñoo jaar fi ñun am permis soo ko sang dañuy bañ maa dañuy bañ mooy nga jóge ci sa place bi rek jaar ñenn ñoo la ah ñu sang ba nga soo wut kayit ba ba baaxee am këyit hmm. waaw booy baaxee am këyit waaye boobu yu bëggul am lu am këyit li bëgg mooy balaa nga koo sànn pànga jenne wala daam naan hmm. nga nga ñu nga indi këyitu bilan ba pare ba am permis waaye bu yàq dem sangi du wëri permis hmm. ndax li ñu bañ mooy ñu ne daa faatoo ki ngiraa neen ñu gaañ ko ñu sàngi ko fa sàng ko fa indi ne la parce ma jox lii bu bi nekkee mën naa mën naa am jafe-jafe la moo tax ñu day bañ ñu loolu ñu fa indi ko am dañu wax ñu waa njare mm-hmm. jàkkee njare mm-hmm. daaru minam mm-hmm. daaru mën naan yin séq ñooy leen ku ak sa a sangati benn way dawlu këyit boobu na jaar fu war a jaar ba perm bi ñëw soo sa wax sankat yëpp nag ndax nag ku fa indi mel noonu nag bu ko jël loolu lañu bañ ndax tu dafa xaw a sew daal ndax leen dañuy yàkkamti ndax am na ñu sang kër yi bu dee kilifa tamit. naan def njëkk. ndax ñun dañ cee amul ab système boo xam ne nii kilifa gi bu faatoo tamit la nga bëgg a def na ko def. loolu tam da nga ko def ci penc ma. la nga bëgg a def la nga bëgg a soxla ci ay def ay ay ay ay ko am. ndax ñun nee na. ñu jéem ba ku mel mu jot ko. bu dee jaar ñu ñu ne suñ suñ laat yaa ko ko jëg kilifa yi li ngeen loolu. Mhm. moom li ngeen koy def. kon wax naa ci. ñi nga xam ne ñoo ne ci séq ñun séq. Mm-hmm. boo jëlee bu jëlee gede. Mm-hmm. gede it daa am ab atta fa nekk gede daa am ab dencukaay. Mm-hmm. am ay sànqal ñoom it atte bii ñu atte. daneen laal. ñun da ko doon bàyyi xel ne ku fi ñu ko ne na am permi permis bi amee mooy na jël kër ci sa ba. ñëw ci ndaw yi ci bàqiyan baa ci ba baa ci mairie ba wuti këyit bu ñu yàkkamti ba. suul ko te amul këyit ndax ñun ca François ba neewoon nañu président bi président président bi am na droit ci police wàcc ci terrain bi. Mm-hmm. daan nañu tey ñaata ngeen suul ñu ne ko 30. Mm-hmm. mu ne ko 30 30 sa sa autorisation. daan nañu nekk daan ne xam ne daan daan man def nañ ma ko ma manqué benn sama rakk la woon. damaa tëj ko damaa tëj kaso wax damaa tëj kaso wax damaa tëj kaso. man ma ne li ma ne leen nag dama ne leen sëñ Laat ñu mmh. secrétaire général bi. Mmh. waaw ma ne laal Muxtaar mi RTS bi Abdoulaye Diop ma ne bu ñu ñëwee. suñu mmh. ñëw kay bu ñu suul. waaw waaw ndax daal leen te ñu fen dëkk waaye intervention yi nga def tamit leen ko. ba am sax xam ne kon danañ jëm ba ñun li li yoon wax. ñu jéem suñu kéemtalaay kàttan. te gees nag moom ñu bàyyi ko yàlla nag. waaw loolu mu la gis yàlla yàlla moom ci yàlla ak bàyyi moom ñu ko bàyyi nag moom. waaye ñu danañ jéem ba daal ba liñ tëral. ñu appliqué ko ci duñ xool dara. léegi nag ngir nag loolu mën nekk mooy ñun ñëpp nañ xam ne loolu ñu def. Mm-hmm. def ñu ko ngir xatal kenn. Touba. Mm-hmm. daa jot état bi xam li fi nekk mooy lan. Mm-hmm. ndax yi nii yi nii yi nii solo suñuy moroom moroom dëkk. ñoo leen ëpp mbooloo fopp. ëpp leen aw nit. kon yi nii solal mbooloo yi dëkk yi. mu mu mu jot sëkk ñun ñun jot la wun moo fa la jóg. tax état civil daa topp ku faatu ak ku faatu. Mm-hmm. te ku faatu mi da am ginnaaw miraas si ginnaaw. miraas mm-hmm. Mm-hmm. maa nga xam ne daal bi dana yàlla ne su ma amaatu fàq barahoo ko waa fàq yow nga xamul rek. nga xamul boo li ñu ci aay bi ñu xam ne ñun néew ñu waaye dama bëgg ginnaaw ku faatu ko ne ginnaawam. set wicc waaw tënk daal mooy li nga xam ne moo soo ci liggéey bi. Mm-hmm. kon daal ñu ngi ñaan ci mboolem ñun séqal Touba. Mm-hmm. mboolem ñun séqal ay barabu sangukaay. Mm-hmm. ñu sàmmoonteeg ndigal yi. xam ne dana ubbi sept heures jeexal dix neuf léegi nag ku fa indi muskàllaf. muskàllaf. ñun suñ saar changé wut quinze mille la. mairie amu ci dara nu ñu fay nu ñu fayu Mm-hmm. permis bi mais fayu ko ci ñun ko waaye ñun suñ doxeenu doxeenu te loolu tamit xamal ne kenn amu ci dara mm-hmm. les quinze mille naka la demee waaw xoolal boo yow naa xam mm-hmm. am ne ko ni ku ne xam nga ne xel da fay càngaay da fay ku la gasal da nga fay ku la sangal da fay tabla da nga fay ku la ñawal mooy quinze mille waaw léegi nag ñii liggéey ci xam nag leen fay quatre mille francs nga fee bàyyi. Mm-hmm. mu jëm ci wàllu barab ba. Mm-hmm. courant baag ci aju yëpp. saytu geeg yooyu. Mm-hmm. ña liggéey mbooloo lan de. parce que ci ba ci Baqia am na ñaari secrétaire arab ak bu français. am ab responsable buy xool mbir ma. am ku nekk biir barab ya mu koy gis mu xool nii denc. am ko xam doo ko gis yow liggéey mooy ndax kii ñu denc mu ngi naaj mu koy denc wala lu mu tëdd ndax baax na koo loo xam loo fa xam chaque jour day xëy si am ak gardien ci bunt bi. bu mhm. yendu am buy fanaan. Mhm. lu mu amee bàqee ah loolu amee ci ci morgue bi. da leen fay. Mhm. am ñoo xam ne dañ leen dañ leen dénk ñu topp ñu topp ñu ñu entretien bi. machine day day yàqu xam nga ko jël en charge. entretien bi ñun tamit dafa liggéey fu ñu jaar aaru ndax ñu mutuelle dañ ko wutal wutal ay mutuelle ñu fay liggéey. sànqal yi ñu aar leen. ku feebar toog seen mm-hmm. li ñuy li ñuy li ñuy aspiré nag. Mm-hmm. dafa bàyyi xel. Mm-hmm. te loolu liggéey wax mi ñëpp ñu bëri nanguñ ko. dëgg la mooy fu aar leen ba ñoom tamit ku leen gis ñëw leen. dëgg la waaw bu wàcc tamit seen kër lu fa lu fa dem. te jotee. waaw produit yi ñu utilisé waaw bu tamas jotee ñu taxawu leen ñu baax a baax ñu taxawu leen ba ko li ñibbi yu baal dara màggal ka saalika ndax koo xam ne nii xamoo tamas sama màggal foo jaa ngi koy téye ndax ñu loolu qualifiant yooyu loolu lay jëriñ. waaw daa mel ni ba ba suñu màggam dañuy dañuy liggéey. waaw léegi ma ma ma wax ma wax ñëpp nag. si am solo nga nit ñi dañuy taxaw ci margo bi ci Bakhia gis mu nekk mille deux cent nangam personnes. Mm-hmm. nga ne fois quinze mille. daanaka xam ne am nañu xaalis <laughs> man d'accord naa ñëpp ku weer dee ku ne ñu ne moom ma ko jox rapport bi. <laughs> ma ko jox rapport weer dee ku ne ma jox mm-hmm. ko jox rapport mu xool. Mm-hmm. su ëppee ñaar fukk mu wax. te manqué ba la quatre cent quarante yu manqué moom. mu war a fay quatre cent quarante yu mu war a fay. Mhm. mu war a fay kon nga xam ne ko ñun ñooñu fa ngir ab xaalis. dëgg la dafa nekk ngir sàmm. ndigali mhm. Sénégal gi ñu jox ndigali te ñuy sénégalais nag. Mhm. sàmmaal nag diina ji ñu bokk. sàmm war mooy Tuubaa nag. dëgg la loolu moo du xaalis buy dabu. dëgg la du du bëgg a xas kenn. loolu doomu moo laa boole leer ci liggéey bi. di sant baax nag vraiment tey neen sëñ président ñaan. di ko ñaan nag mu gën a mu ngi ñoo jege. ah surtout loolu waaye léegi bu dee ñu ne xale bu ndaw xale bu ndaw tamit mm-hmm. topp ñu dara mm-hmm. zéro ba neuf ans def dara mm-hmm. léegi ñu am ay cas yu yu critique ku ñëw ci parce que day def na ko ñëw ne ma néew bi dee nga nii amul dara amul benn kayit am naa kayit am naa mu ne kayit mu foo kam ñëw moom kayit bokk ci kayit bokk ci kayit bokk ci moom maam amul ma ko waajale maam yorul dara ci koppar lu ma ko waajale amul suñu fa daan ma dañ jox seen mu waajal ko lépp taxawu ko ni taxawoo ñëpp. ba suul ko. waaw waaw muy foofu tamit da nga am volet social foofu. waaw yaa ngi dégg. Mm-hmm. moo tax nit ñi defee alal tamit xam ne. waaw waaw. Mm-hmm. kon nag ñun da doon fay ñi ko ñu lu tey ñoo ko fay bopp. yooyu mm-hmm. xam ne ne mbir mi de social kee bokk. maanaam ku man ku ne nañu jàpp mbir mi. ci doole. ci xam-xam ci alal. ndax bu ëllëgee ku fa ñëw fekk fa anam goo xam ne nii ñëpp a koy rafetlu. léegi wax naa tamit bàqee dana fees dana fees waa dana fees moom. Hmm. waaye tamit ñun préparé nañ lépp. toll ni ñun ñoo ñoo jëm ci tom bu ne. Hmm. ko ko indi ñu localiser ko bopp am ko. ndax bu ne Matar indi fa am néew 2007 numéro ba daanaka mën a localiser ba xam ne kii mu dëkk ba dem kër sàng mu dëkk. Hmm. ci lañ jëm ndax bu dañoo bëgg ku ne fa nga nekk la nga soxla sa sa dawlu nga am ko ci këyit am ko ci xam-xam. maa ngi jégalu ci kàddu gi. macha allah wasalaam di leen jégalu ci di defal allah. leer na loolu sëñ Makhtar Kane euh, leeral bi am na solo ni ko président defee noonu ko defee leeral bi am na solo lool euh, wane na ne ni nga xam ne noonu la ko président leeralee nga xam ne yoonu Sénégal noonu la tënkoo yéen it ci loolu ngeen nekk waaye ngeen mën mëngale kook charia ni muy doxee nga xam ne euh, da ngeen jëfee. li yoonu Sénégal wax te du ngeen génn it charia la nga xam ne moom la santaane mu nekk loo xamante ni lu am solo xam naa sëñ bi yow laay mujjee dem ci tribunal président tribunal euh, ñëwaat euh, ci yow sëñ euh, sëñ sëñ sëñ Ablaat président mu mel ni am ñoo xam ne dañuy génn àddina dañuy maanaam dañuy gane àddina génn àddina muy les mornais am ñoo xam ne mën nañoo génn àddina te kenn du leen xam yenn saa yi nga gis nit génn àddina ci mbedd mi kenn xamu ko ñu jël yóbbu waaw kenn am am amuñ ci moom gisuñ ko d'identité wala inconnu daal lay doon. ak ñi nga xamante ni ci accident la ñuy la ñuy la ñuy faatoo. ma dolliwaal ci euh, ni ma la ko waxee sànq ñi nga xam dañuy bàyyi ko bitim réew it. Euh, ñooñu ñëpp euh, naka lañ koy lijjantee. waaw jërëjëf ñu ngi kontaan ci laaj bi. Mm-hmm. di dalal xelu sëñ Maxtaar léegi rek. ci li wax ci wàllu rapport yi. Mhm. liggéey boo gis day am rapport. Mhm. ci administration mhm. kon rapport yi lu baax la. xëy na li ci am solo rek wax na ko ci saa si. xam nga ce qu'on appelle les les données personnelles maanaam nit ki dafa am loo xam moom moo ko moom ci kumpaam. loola nag euh, dañ koy bañ di fësal waaye ñoom sañ nañ def ñaari rapport rapport boo xam ne ni confidentiel la. ñu jox ko sëriñ bi ñu ko séqal moom moo koy exploité su ko defee xool lam cay jariñoo comme li mu wax léegi parce que rapport yi dafa am solo day day tax lu baree bari ñu man koo mm-hmm. jubbanti ak mm-hmm. joyanti mm-hmm. léegi nag li nga xam dafa laal maanaam vie privée nit ki ci faatoom ci yenn anam yi kooku effectivement day am rapport mais rapport confidentiel la boxam Euh, d'ailleurs am na cachet confidentiel bu ñuy wax. Mhm. nga xam ne maanaam buñ ko ci xasee tamponné sax ba ci administration boo ko xoolee. Mhm. ñu jox la ko ne président moo ko moom yow sañatu ko dindi. dëgg la ca kam jëm rek. kooka nag moom ci boppam kilifa la goo xam ne nii xam na boppam. Mhm. lam cay exploité xool ko ah man ko jariñoo moo ko xam. am rapport boo xam ne ñëpp dañ koy mën a jariñoo muy ay données statistiques. yooyu moom cause décès yi du te nekk. ndax wax na ko léegi da koy junj. waaye mën naa ci sori waaye du ma ci xóot. Mhm. mooy léeg nga gis nit ki mu faatoo nu xam ah di nga ko wax kilifa ki mhm. ngir ñu xam ne lii am na ci dëkk bi wala lii xew na fi. Mhm. waaye duñ ko mën a wax ñëpp. ñëpp dëgg la. donc diggante boobu rek moo mat a leeral. rapport bi jëm ci autorité bi nga xam ne nii moo la doon liggéeyloo. nga am c'est confidentiel. ndax secret yëpp ci lay nekk. ak rapport bi ñëpp war a mën a jot. nga xam ne moom amul benn lu muy fësal. wala lu muy siiwal ci ay bu jàmbur wala melokaan waxam. bi muy dund la ko làqoon ci jëmmam. te dee rek moo tax mu feeñ hmm. loolu rek moo ci am solo waaye rapport moom hmm. mooy tax nit ki ren mu xam ne fii la nekkoon daaw fii la déwin fii la jëm hmm. déwén jéeg fii la jóge woon jéego yi la dox lii la war a joyanti lii la ci jubanti lii la ci jubut kon lu am solo la mënut a ñàkk euh, li nga laaj am na solo euh, ma njëkk ci ñu jóge bisim réew keroog yu ñëw ba ñoom sañu blaat fekk nañ ko euh, benn bi la rek ku jóge bitim réew du ma ci xóot ci ñoom ci seen doxalin. Hmm. waaye ci gàttal ñëpp xam nañ ko am na ay consulat. Hmm. ak ay ambassades yoo xam Sénégal teg na leen fa. Hmm. ci kilifteefu borom réew mi bu nit faatoo foofa ak daayira ak kuréel yi fa nekk ak association yi. danañ ànd xool ci autorité ya ak fan war a jaar ba am kayit. ba indil ñu ko suñ ko xasee indi effectivement ñu ne baax yàlla ay dugg Touba. bu ñu xasee dugg ci commune bi dañuy dëppoo sart yi commune bi wax. commune bi sëñ Maxtaar wax na ko permis mooy tax nga dugg. bàq ya mhm. kon bu néew ba jógee États-Unis Espagne ak fu mu mën a doon mhm. fa tubaab yi moom am nañ la ci seen kii danañ ko waajal moom ba mu leer mhm. bu ñëwee ci ñun it ñun it fas yéene nañ incha allah li tàmbalee ci suba ñu fexe ba it ku fiy duggati ak foo mën a jóge am kayit woo xam wax nañ ko léegi bàq ya ñoo la koy jox wala commune bi la koy jox rek ñaari kayit yi benn la kenn kilifa gi la denc mën a am bu dee nag koo xam ne nii Euh, dañ ko retrouver benn cadavre comme ñi sànni xale yi ci mbedd wala ku ku dox ba ci àgg mu faatu kenn xamu ko fenn kooku moom dañuy wax ne ku ko gis na nga ko yëgal officier état civil directement systématiquement waaw moom bala nga caa jéem lijjanti lenn na nga ko koy yëgal ba pare effectivement yi yëgal ko police ak gendarmerie maanaam moo xam gendarmerie moo lay jege wala police moo lay jege waaye danga ko yëgal officier état civil bi maanaam commune ba ba nga ko fore mhm. danga nga ko yëgal kilifa ga fa nekk boo amee ay renseignement comme li nga wax mhm. ci fu mu dëkk mooy kanit daa gën a baax mhm. day tax permis bi ak këyit di gën a gaaw ah waaye boo ci amul dara yoon moo sant officier état civil bi ne ko maanaam ni mu ko gisee ak ni ñu la ko wane ak mandarga yi loolu ngay def ci këyit bu ñu demee nag ëllëg ba ay mbokkam feeñ wala ñu yéene ko annoncé ko wala am ay photo wala dara nga door a mottali saw kayit moo mat waaye nit moom mënut a xaar. Mm-hmm. buñ ko bu faatoo faaw ñu jublu ci. rapidement xool rek luñ ciy def xool cause yi. Mm-hmm. waaye buñ xoolee cause décès bi ba xam ne amul jafe-jafe. Mm-hmm. dañ koy robi. ndax mënuñ ko denc fenn mu yàgg. waaye li ci am solo mooy ku gis ku faatu te xamoo ko fenn ci ay mbokkam. na nga woo police wala gendarmerie buñ la gën a jege. ak it officier état civil bi nekk ca commune ba. nga wax leen loola. loolu moom su xasee am ñoom formalité yi ñuy def. ba joxe ba joxe kayit wu ñuy wu ñuy sukkandiku pour denc ko. Mhm. ñoom ñoo koy def. Mhm. donc loolu yaakaar naa mooy li nga ma laajoon ci waa extérieur yi. Mhm. ak euh, ba ci it gox-goxaan yi. lu mel ni région de Diourbel bi ñu nekk ñun. ndax Touba ci région de Diourbel la bokk. ku faatoo woon tey ji ku dëkkoon Touba am feebar ñu évacuer le principal bu Dakar. nga faatoo fa ñu war la indiwaat Touba gi nga dëkk Rob la. foofu également. Euh, bu fekk comme ñaari région yi bokkut la mhm. gouverneur région ba nga xam ne nii fa la hôpital ba nekk gouverneur boobu moom it foofa doo fa génn mukk mhm. te joxu la ordre de transfèrement bi tax nga jóge ci dëkk ak dëkk dem loolu day damay may ma dugg ci mhm. question boo sëñ Maxtaar laaj démb pour wax it ne wax dëgg yàlla maa ngi koy sant joxu gërëm ndax ñi ngi liggéey ñuy collaborer muy guddi muy bëccëg ku bëgg xam la ku bañ juum la donc man mi it taalibe laa comme ñëpp. Mhm. ubbil ubbil ñëpp sama buntu. dëgg la ku ma laaj muy guddi muy bëccëg it dama lay wax ngir jëmmi Serigne Touba ji. Mhm. ndax ñoo ko bokk. Mhm. moom démb rek waxtaan nañ ci benn question boo xam ne nii. ku faatoo hôpital Cheikhul Khadim bii ci yoonu Darou Mousty la. mbokk yi ñëw ne ko permis lañ bëgg a si. comme li mu wax it mu laaj parce que enquêteur la dafa waral a laaj. ne leen fu ngeen bëgg a suul. ñu ne ko ñun Mbacke lañ bëgg a suul. Hmm. bu ñu fàtte ne commune la. Touba commune la. Hmm. sëñ Maxtaar leen comme Mbacke ngeen bëgg a suul. ah loola biñ ci jokkoo ma ak moom ci hmm. xam-xam génn ci. effectivement commune jàmbur lañ jëm. comme li mu wax léegi ci yeneen euh, morgue yi rek. nañ dem ca commune ba. commune booba ñu bëgg a suul wuti fa permis ndax bu ñu jëlee kayitu hôpital bi certificat médical bi. dem ca commune Mbacke ba. mais ñu defal la inhumation ñu daal jël si jël seen néew xam nga tax permis boobu am solo. donte ci biir département bi la. dèjà maa ngi koy fàtte sax lu am solo mooy morgue bi moom morgue hôpital yi. li yoon santaane mooy doo fa génne ab néew te indiwoo permis bi kon permis bi moom kenn mënu ko rëcc. xanaa ku faatoo feneen laqatu te wóorut ci yow tey nag di doomu aadama jàpp naa ne xamut fu mu war a faatoo. wala boog am na suñu borom ñu néew. ñu ngi ko may mm-hmm. Mm-hmm. waaye ñi ci ëpp moom mm-hmm. waaw xamuñu fu ñuy faatoo hôpital la ci kër gi la leeru ma waaye bu dee hôpital ki yor morgue bi benn caabi lay laaj caabi mooy li ubbi morgam boobu pour mu jox la sa néew mooy permis d'inhumer bi waa bàq war a signé bu dee Touba la wala beneen permis boo xam ci beneen dëkk la boo ko war a yóbbu nga indi ko présenté leen ko comme ñoom seen permis moom fowuñ ci loolu moom leer na Eh, kon daal yaakaar na eh, ci gàttal loolu. ak ak ak ñi nga xam ne dañuy morne yi. waaw morne yi également. Mm-hmm. Eh, mooy li ma wax rek ba tey. Mm-hmm. muy morne ku mën a doon xam nga doomu aadama la. Mm-hmm. xëy na xamaguñ tur. waaye ci diine. bu fekkee kiy dund bu ma jumee boroom xam-xam yaa ngi fi. man am naa ci benn exemple bis bu ma jege. Eh, bu dee koo xam dafa indi bakkan dañ koy defal li ñuy defal ñëpp. dañ koy hmm. sang dañ koy jullee. Hmm. kon kooka dèjà tey lu ci ëpp eh, ci man bi ma ci fekkee. dañ koy hmm. jox tur. am na ñu joxe tur. Eh, am na ñoo xam ne ni xëy na mën nañoo bañ a joxe tur. waaye bu indee bakkan moom dañ koy defal li ko war a defal. bu boobaa it kooka danañ ne doomi diw ak diw la góor la woon wala jigéen la woon. ma joxe renseignement yoo xam ne danañ ko mën a def ci permis bi. Mhm. wala ci certificat médical bi. Mhm. selon hôpital la faatoo wala ci kër la faatoo. Mhm. donc ku mën a doon même bu dee morne. maanaam dañ ko war a suul. léegi nag am na ci ñoo xam ne buñ indiwul bakkan. bu dee ci suñ pratique. xaw ma nag loolu moom damay bàyyi borom xam-xam yi dinañ ci wax. waaye bu dee ci suñ pratique pratique wu dëkk bi. dëkk yi ma xam man ci ci yi ma fekke mm-hmm. bu fekkee dafa indiwul bakkan am na ñu sax ñoo xam dañ koy suul ci kër dëxañ ko ndànk mm-hmm. xaw ma nag loola diine la mm-hmm. aada la gis naa ko boroom xam-xam yi danañ ci mën a sof dañoo jeexal ndax it nag xam-xam dafa yaatu te ñun nag nitu diine lañ même bu ñu jàngee tubaab euh, lislaam lañu ñu bëgg moom lañu gëm ay taalibe sëriñ bi lañ mm-hmm. luñ ñu dolli ci diine daf ñuy gënal moo tax ma bëgg loola sëñ Abdoulaye sarax ñu ko bu fekkee koo xam dafa indul bakkan la mm-hmm. ndax suul gi ci kër gi dafa dafa jaadu mm-hmm. wala dafa war a dem armeel waaye li am solo bu fekkee armeel la war a jëm moom si matière war nañ ko léegi faaw bu dee ci sëñ Maxtaar la jëm da koy laaj kayit li gàttal naa wax nañ ko armeel yi moom ku fi suul léegi da nga am permis permis mooy caabi ji waxaat nañ lu am solo ma sant di ko ci ñaax dëkk bii dëkkub sëñ Tuubaa la war ma ji dañ ciy laxasaayu wax na léegi ne ak kayit wu mën a ñëw moo xam kayit wu jóge ci procureur jaar ci maire bi keroog nëbbatuwul wax na ko ci réunion ba ma ma jàpp jàppale ko ci ndax ñun sëriñ bi rek lañ am la moo xam kayit wu jóge ci officier civil la heure bu ñu ñëwee bàqee gii mu yor moom te loolu mooy pas-pas bi mu amee te ñun ñëpp moom la ñu war a amee mooy nañ ko xool bu dee malgré kayit dañ koy xool su dee koo xam na nii sunu pas-pas ak sunu kilifa yi ak suñu war mooy dëkk bi waruñ ko faa suul buñ ko fa suul li may wax junj doy na borom xel dëgg la su dee koo xam ne nii comme ni mu ko am na yenn mandarga yi yooya boobaa it dañuy laaj ci lu ko def nii bu ñoom ñii dañuy jël seen téléphone woo police commissaire mhm. wala président tribunal wala procureur mhm. ne ki ñu lëmasoon kat ñu di ubbi ko gis nañ ne kii am na lu ci ayib. Mm-hmm. kon nañu yónnee ñu def enquête. Mm-hmm. bu fekkee ayib bi ñu jox ñu ndigal ñu suul. Mm-hmm. bu dee lu garaaw nag si am ci. ñu ñu ñu déterminer les causes du décès. suuli ko ba pare bu dee ñu ñuy topp ci ay mbokkam yu ko faat wala ay jàmbur yu ko faat yoon topp leen. kon sëñ Maxtaar. maa ngi lay dëgëral ci pas boobu xamal na ñun ñëpp ñoo ko bokk. lu këyit bu mën a yor daal. armée sëriñ bii moom kuñ fiy dugal. ci lu leer lañ lañ si dugale ngir sàmm war mooy sëriñ bi mhm. loolu laa loolu laa ne mën naa ko xanaa laataa ñuy yëkkati jotaay bi rek nga mhm. fàttali ñu sanction yi muy daan yoo xamante nii xëy na mën naa dal ci ñoo xamante ni euh, dem nañ defee nu leen neex wala jàpp ne euh, ñoom mën nañ dencee nu leen neex daal waaw euh, maanaam koo xam daal suul nga mhm. te amoo kayit ndax boo jàpp nañ ne boo amee kayit mucc dana am ndax war ngaa jaar nga fa nga war a jaar ba suul. Mhm. ki suul ci kaw kayit ak ay preuve yu mu am wax nañ ko. Mhm. certificat médical chef de village ak i enquête boppam. Mhm. kooku it daanaka dañ ko déchargé parce que ci ay preuve yu leer la suule. waaye da li nit matut. pexe yi bari na. ñu dëgg la ñu bari nañ. ndax nit man nañ ko empoisonné te feeñut ci jëmm ji ab diir. ñu suul ko. ñu dem ba xam ko léegi nag yoon it loolu dinaa ci dugg tuuti dafa am lu ñuy wax intention. maanaam daan boo gis ci yoon maanaam jëf ju ñu war a daan ju ne. dafa am lu ñuy wax élément légal matériel. ak moral. Mhm. maanaam day fekk d'abord. Mhm. yoon ne lii ku ko def ñu daan la. Mhm. mooy loi da koy prévoir. waaye day doon def joo xam ne nii maanaam faaw mu mel nii mel nii. door a sol mbubb muñ koy daane. waaye day fekk nag nit ki ki ko doon def am pas-pasu jànkat yi. maanaam tayeef. mi ngi mel ne dof kenn du ko topp yéene daal yéene ah, mhm. maanaam ne daal li mu doon def xamoo maanaam moo ci jublu woon mhm. maanaam def jëf ji nga xam ak lëngate mhm. léegi nag ñun dañuy xool ñett yooyu yëpp ndax élément légal bi mën na am élément matériel bi am waaye intention bi amut bu boobaa infraction bi dajewut kon dañ koy mën a bàyyi kon rëcc maanaam woyof mën na am ndax nit mën naa suul te fekk pas-pas ba ak yéene ju du woon jalgati wala sànq mhm. waaye nag ku dajale yi ma wax ma ñëw ci suñ kaa bi mhm. dañ nag suul dana am mhm. waaye ku suul jaaral fii amal fii ah nit ki tay ko jaaru fa topp toowu ko bëtt ndigal ci tayeef ci ci ci ci ci ci ci fitam bu boobaa maanaam am na benn article bu ñuy wax article trois cent cinquante deux boo xam ne nii maanaam li ñuy wax code mhm. maanaam lépp loo xam ci wàllu sanction moo ci dox mhm. maanaam mooy dal ci kawam mhm. euh, looloo nag wax naa ko keroog ci réunion bi bu dee fi ñu dëkk euh, yàlla kenn ñaanu ko li ñuy ñaan daal yàlla defal ñu sutura defal ñu jàmm nii ñu ànd di liggéey sëriñ bi ah yàlla defal ñu ci ndam defal ko ci sëñ Muntaxa defal ko ci mbokki boppam yi mbokkal dëkk bi jaral ko fi taalibe yëpp. Mm-hmm. moo tax euh, nañu rafet njort bu baax. Mm-hmm. ni ñun ñu yor wàllu yoon. Mm-hmm. ay taalibe lañ. yu jàng suñu diine. judd ci yoon wi màgg ci fas yéene cee faatu. te sakku lu ñu ngërëmu sëriñ bi. xam-xam bi ñu jàngee it di ko liggéeyal réewum Sénégal. am taw feexit di ko lëg di ko jariñoo ci gox bu ñuy wax Touba. te bokk fi. lépp rek dañuy bëgg lépp dëppoo ba si réew mi am ci ndam fi may mujjee mooy li sëñ Maxtaar wax léegi yàgg naa ko wax ci ay réunion ni Serigne Touba nekkee modèle ci fépp ak ci ci lépp ci lu baax nag laa wax noon la waa këram ak i ñooñam war ko nekkee waaye noonu la dëkkam bi war ko nekkee ba sëñ Maxtaar ne keroog réunion ba Touba lañ jël def ko ci kaw ndax gis nañ ne dafa jiitu ci lépp mm-hmm. jiitu googu nag ak sag boobu ñun ñëpp ñoo ci war a góorgóorlu mu am te it ñun incha allah fas yéene nuñ ci mën a bàyyi suñu waar ñu bàyyi ko di gën a ubbiwaat suñu loxo mm-hmm. ci waa xidma ndax sëriñ bee ñu boole woon mm-hmm. sëñ Abdou Lahat nga xam ne wax dëgg yàlla déggoon nañ ci lu bari mm-hmm. duñu umpante ci lu bari kon ni ngi ko santaat. Mm-hmm. di waa daayira bi. jërëjëf santaat kilifa yëpp. jërëjëf di wax jërëjëf. jërëjëf euh, président Cheikh ñaan ci euh, kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati waat na ko euh, leeral rek lépp loo xam ne moo jëm ci ponk bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee booba léegi mu jëm ci ni nga xam ne noonu lañ war a dencee ñi nga xam ne dañu fee bàyyi ko wuy ji suñu borom yaakaar naa li mu fi wax yëpp leer na leeraay goo xamante ni képp ku ci jaar rek mën ngaa bañ a juum yaakaar naa boo ko déggee te defoo ko. bu boobaa am na loo xamante nii mën na la caa fekk waaye boo ko jëfee it euh, mën ngaa mucc ci loole kon euh, sëñ Abdou Lahad Bousso mu mel ni sànq am na benn question bu président xawoon na sànniwaale mu jëm ci. <laughs> xam naa nga ñëw ci rek laata ngay ramasser ak euh, jàngat booy xam ne da koy def ci jotaay bi. ak looy ñaaxaat ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan nga xam ne dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax nga xam ne liggéey bi ngeen def ñoom lañ ngeen koy defal ndax euh, bëgg rek képp ku ñëw jaar ci yoon wi nga xam ne fa nga war a jaar ba li nga bëgg nga mën koo am. Euh, jërëjëf sëñ Fallou xam naa président moom. Mhm. daf may daf may daf may jabaxal bëgg <laughs> ma ci kii waaye. dama koy bàyyi sama rak sëñ mm-hmm. Mourtala mi xam ne moom moom ñooy liggéey. <laughs> moom xaada yi moom faqee la. <laughs> Euh, waaw xam naa bu dee xale bi nga xam ne dafa juddu te bind bi mat dañoo wax ne dañ koy denc ci dafa am ay ay wóote euh, dañoo wax ne bu bind bi xasee mat dañ koo war a yóbbu ci ay armeel am na nag ci biir ñoo xam ne daganal nañ ñu denc ko ci kër hmm. waaye. bu dee ñun ci masab bi nga xam ne ci lañ nekk muy masab Malik ci Seex Xalil ci sa niñ ko waxee ca sarxa bi dañoo wax ne dañoo sip ñuy jël xale yooyu di ko denc ci biir kër mm-hmm. kon loolu ci biir bu Malik moom euh, dañ ko fi tere te rek ci bel nga xam ne mm-hmm. bëgguñu ñuy jël ko xale bi nga xam ne dafa faatu di ko denc ci kër nañ ko mm-hmm. denc ci armeel euh, bu fekkente ne dafa juddu may mooy li ñuy wax Euh, avorté mooy nit koo xam ne dafa mm-hmm. juddu te indaale wul bakkan mm-hmm. bu ñëwee dañ koy denc faj yi mm-hmm. denc wax nañ am nañoo àgg sax ci ne bu fekkente ne cër ya mat na lépp mat dañ koy defal li ñuy defal ñëpp am ñu ne judduwa comme judduwaalewul bakkan jërul ñu di ko defal li ñuy defal ñëpp waaye dañ koy denc nag ca armée waaye denc gi ci biir kër moom daanañ ko def des na koy am na ñu koy def itam am na ñu ko daganal daganal nag ko ak waral. Mm-hmm. Euh, daganal mooy luñ mën a def mën a bàyyi. Mm-hmm. atte dafa am muy atte xam naa ne dafa am loo xam ne dafa war. loo xam dañ ko dañ ko sopp am loo xam dafa dagan rek. Mm-hmm. li war moom boo ko defee boo ko defut daa ay daan dala li nga xam ne dafa dañ koo sopp mooy lii kat mën naa bañ am waaye bu amee moo gën. lu dagan nag mooy loo xam ne nangu a def nangu na bàyyi. même ñi nga xam ne dañ koo dañ dañ koo dañ koo dañ koo. dañ ko dañ dañ ko maye. Mhm. ci dagan lañ ko yóbbu mooy nangu na def nangu na bàyyi. Mhm. waaye nag bu dee ci masab Malick moom dañoo wax ne dañoo sip ñu di ko def. ci biir kër ñun nag ci masab Malick la ñuy attewa mhm. xëy na nag aada andi woon na ko maanaam ci biir masa ci biir Malikiya xëy na am ci ñu ko ñu ko ci daganal waaye bu waaye ci dagan dong lay jëm kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñu mënoon a tontu ci laaj boobu macha allah Euh, waaw xam naa nga ñëwaat rek ci euh, yan kàddu ngay yëkkati mu jëm ci soññee ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu teelu ci li nga xam ne moom lañ doon waxtaanee ñu xam bu baax ne lii ñuy def ñoom lañ koy defal lépp rek ngir leeral leen ñu xam yoon yi nga xam ne ci lañ war a mën a jaar ba denc ñi nga xam ne dañu fay bàyyi ko. waaw foofu de damay fàttali sama bopp di fàttali samay bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal mm-hmm. ne jamono dafa soppiku te léegi wax ji dafa bari mm-hmm. waxukaay yi itam bari foo nit ñi di fa tasaare ay mbir di tasaare ay xabaar yoo xam ne yii yu wér la yii yu wérut la mm-hmm. tax na kenn ku nekk war nay moytandiku bu baax a baax a baax a baax danaa joxe menn misaal fii ci morgue bii ci jumaa ji waxtaar ngi ni dima seeri waxtu wu nekk sonal nañ ñu fi ci ay mbir yoo xamante ne bii euh, yu mel nii lay doon la daan doon ku ne da ko daan jël am na fi bés boo xam ne sunu ñi fi nekk ñëpp police lañu yandu ñu di leen enquête ndax lan indi nañ fi ak nit def nañ ko euh, ci ci ci ci ci ci chambre froide bi génne nañ ko nee nañ dagg na lu nañ wax ko ca dañoo dagg cërim yóbbu dañoo def nangam yóbbu dañoo def di télévision bi yaakaar naa ñu bari gis nañ ko mm-hmm. ci ay réseaux sociaux yi ak yu mm-hmm. mel noonu dal nañu fi ay yooni yooni yooni yoon te yàlla xam na ne bañ ko toppee ba egg ba ba ba ca fin ba loolu lépp dara amu ci. loolu yóbbee nañu euh, li président ñaan di wax léegi dem nañ ba dañoo mujj wut ay caméra de surveillance def ko ci ci ci ci morgue bi te mënoon naa ñàkk. mënoon naa ñàkk waaye jamono moo fi toll ak nit ñi seen esprit toll foofu. nga xam ne guddi ak bëccëg bu lëndëmoon ba kër yi si tam bu courant coupé woon itam moom day gis. nga xam ne yu mel noonu soo amati bu dikkee da ngay gi waaye bi bi boobu amee itam. teewul léeg-léeg nga denc nit. ci ci morgue bi. génn fekk yaram it dagg wala mu nàngam. yooyu nag dafa am yu koy expliquer ñaari yëf. mën na koo expliquer. benn bi mooy mm, nit ki bu fekkente ne dafa ragal am ndox ci bi muy dund. Hmm. loolu laay joxe misaal bu faatoo. mën ko so mën naa faatu ba noppi bañ tëral ko buñ ko sottee ndox day xëxët yëngatu ba da ngay jàpp ne kii dafa dekk ndax lu mel noonu mënut a am ci ko ragal sedd ba mu ëpp ñu dugal ko ci mu jekki-jekki def ko yëngatu mu dagg dal fenn ci biir ci ci ci parce que mhm. wañ gi dafa ñaw mhm. mu faatu mu mu mu dagg mhm. am na ñoo xam ne it seen yaram dafay wow day wow bu duggee ci glace day wow bu wooyee day day teppi ko. day fett day mm-hmm. fett. Mm-hmm. def ay fett fet mën naa def ba dagg-dagg yu rëy. Mm-hmm. yooyu yëpp da ci am. li prouvé loolu mooy bi ñu xasee def caméra de surveillance ak léegi koo ñëwati boo ja ba waxee bëggee indi lu mel noonu dañ lay nga toog ba nga ko fi indee. ba ni mu jeexee. xasee nga xool gis ni kenn duggaatu fa fa nga ko fa nga keroog ba nga ba waxtu ba nga ko ubbee ba bi nga ko ubbee kenn. duggaatu fa. bu boobaa koo koy jiiñ da ngay mujj xay ngay na ay janax ba dugg ak nangam ay defi defi defi léegi la indi yeneen teg yoo xam ne yu yu yu doy waar la mm-hmm. lu mel noonu nag dafa mën a am itam ci ab néew. Mm-hmm. boo xam ne mën nañ ko indi léegi mbir mën naa am nit ki faatu. Mm-hmm. ne nañ ko denc. keneen jóge fële koo xam ne mën naa joxe misaal sama mbokki sëñ daara yi ndax man ci laa bokk. nit mën naa jël doomam yóbbu ko ci daara. am na ci ay mbokkam ñoo xam ne da d'accorduñ ci mu dem ci daara. ñu mu mu siburu faatu ñu ñëw denc ko ña d'accord doon ci ne mu na dem ci daara dañ ne boo demee xale bi dañ ko dóor wala dañ ko gaañ wala dañ ko nangam. Hmm. dem ci yoon porté plainte ne dañ ko denc ndax dañ ko kii mu dee faatu nangam nangam. Hmm. su ko defee su fekkente ne amuñu yenn renseignement yu leer ca bañ koy denc. Hmm. yoo xam ne yoo yu yu yu mën a weddi ne loolu mu waaj wax wala lim ñaaw njort. am na ci bu boobaa liñ doon bañ day am. li doon bañ day am te loolu dama ko joxe misaal ci parce que ci ci ñoom laa bokk. Mhm. waaye mën naa am fenn bu moo tax bu la waxee ne lii mooy tax a mucc ci lii. Mhm. te loola nekkul lu jafe loo xam ne luñ ma luñ munta lu munta am la. waaye mhm. waaye defal defal defal lu mel noonu. defal lu mel noonu. te lii kat yaakaar naa yomb na te mën naa protéger kiy denc. kiy denc ak kiy denc lu. mën a protéger ña fa nekk. te nga xam ne ñoom ñooy joxe ñooy saytu barab ya mbir nag bu fekkente ne sa kaso da cee nekk yow muy denc lu di kilifa gi nga xam ne yaa joxe digal muy denc kaso ki ñëw di denc ci nekk taxaw ci kaso ki koy may fu mu ko denc nekk ci wax dëgg yàlla loo yàkkamti yàkkamti yàkkamti war ngaa mën a fexe ba teggil ko sa bopp teggil ko sa ñaari bokk yooyu nga xam ne ñoom nga ko seqal mm-hmm. kon nag mbir mi du lu metti du lu jafe lu dara lu dul bëgg ak leer bëgg lu yomb ci nit ñi bëggit ëllëg dara bañ cee toppaat ki koy ki ko ki ko def mm-hmm. yàlla na nga xam yooyu yëpp mën naa am ba noppi ay toppaat am ci mm-hmm. ndax nit ñi léegi ñoo toll foofu ñoo toll foofu bàyyeetuñ dara lu xew lu nekk kenn ku nekk day bëgg xam-xamu boppam mm-hmm. indi ci nangam ba dana ko jaral def lu ne ngir loola am te yoon it nag ñoom boo leen saisiré ne leen nangam dafa am seen sañ-sañ mooy ñu toppi ndax loola lu wér la wala lu wér mm-hmm. loolu lu lu mën a ñàkk soo dikkee ne leen nangam am na te nangam joojee ñu euh, ay nit séq ko kenn ca ñoom dikk ne leen nangam am na faaw dañuy xooli ñoom ba xam loola am na walla amut mm-hmm. xool googee nag bokk na ci li leen koy jàppandal mooy lii bokk na ci liy jàppandal loola ba nga xam ne ki nga xam ne yàlla sutura yàlla def nañuy suturaal ko. Mm-hmm. sutura du du du du du ko te dañ ci ab jullit ba noppi sul sulliwaat ko ci condition yi dañuy dem seeti rek ba xam lu ko rey mhm. wax dëgg nekkul sutura ci ab jullit kooku ko mën a teggil nag wax dëgg yàlla teggil ko ko mooy la gën mhm. soo amee ak ñaaw njort jaarale ko fi nga koy jaarale ñaaw njort firiwul ne li nga ñaaw njort day am mhm. dafa am manees na fee indi am nit ñu gis ci moom ab gaañu gaañu boo xam ne bu bees la man na am gaañu gaañu boobu gaañ woon na ko te faatu ko. Mhm. buñ ko xoolee te nga xam ne gaañu gaañ boobu faatu ko waaye dafa daa daje rek. Mhm. ak bi mu daataa wér mu faatu. Mhm. ñu denc ko ci jamono ñooy su fekkente ne dañ gaañu gaañu boobu nag ca la sabab moo ñu xool lu ko gaañ. ndax dafa doon gaañu gaañu boo xam ne du tayeef moom moo gaañu moo gaañu te teyu ko wala ndax dañ koo gaañ. wala ndax ki ko gaañ da ko tey ndax ki ko gaañ teyu ko. comme ni mu ko waxoon léegi jublu jublu ko la ñuy xool. loolu nag yoon a koy seet. dëgg la. waaye du ñun ñoo koy seet. Hmm. ñun dal lañ ca lañ ca am mooy bu accès des na ko xool ni ko sëñ Maxtaar waxe woon léegi ña fa nekk danañ ko xool. Hmm. saytu ko saytu ba ca war. Hmm. buñ ca gisee luñ wóoluwut nag wax dëgg yàlla dañ koy jox ña seen xam-xam. màcc jëm ci loolu ak ñi nga xam ne ñoom la ko yoon jox. ñu dem saytu ko ba xam lu te ne. waaye ñun nag président waxoon na ko léegi laa talqu aydikum bi ko ila tahluka duñ jël suñuy suñu suñu suñu suñu bopp rek di ko tayle mm-hmm. ci loo xam ne mm-hmm. luñ xam la mm-hmm. kon loolu mooy li nga xam ne rek moom laa bëggoon a tënkee eh, di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy maye mu may defal ñu jàmm di lii ñuy wax itam ñu déggee ko ni ñu ko waxee rek dégg ko itam ni nga xam ne noonu lañ ci jublu noonu lañ ci jublu ak ni li nga xam ne itam moom la sëriñ bi bëgg mooy ñëpp déggoo te déggoo te dëppook yoon ñëpp déggoo te dëppoo ak yoon loolu mooy bëgg-bëggub sëriñ bi mhm. moom la santoon président bi mhm. moom la santoon monsieur le maire moom la ñu santoon itam loolu it ci tànk yooyu rek ci la ñuy dox mhm. waaye président nag ak maire ñoom itam def nañ ci lu am solo te mooy yombal ko yombalal ko ñi nga xam ne ñooy ñëw ba kenn du ci sonn ki ñëw ba agsi beqee war a demaat ca buntu Mbàkke fa maire yi ba nekk di wuti kayit xëy na metti na loolu moo tax ñoom déggoo ci indi fii benn officier boo xam ne day yor délégation maire signature mm-hmm. maire ca barab ba maanaam ku agsi boo dëppoo ak yoon mm-hmm. mu mën laa defaral kayit mm-hmm. waaye nag soo dikkee moom it nag mu am lënt li nga li li nga andi wax dëgg yàlla moom it li may waxoon léegi ci ñu bajal ko suñu bopp moom it mu lay bañal boppam lu tay la boppam néew boo xam ne xamu ko xamu jóge xamuti bokkam wala xam na ko sax waaye. am lu ci lënt am na lu ci lënt mhm. te loola mën na ko indil jafe-jafe. Mhm. moom it wax dëgg yàlla daw day dawal bopp dawale boppam jafe-jafe. voilà ne ko ñëpp xamee noonu. ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf di balu xàq ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf euh, sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar. jërëjëf euh, président Cheikh Niane jërëjëf euh, sëriñ Makhtar Kane. ci jotaay bu am solo bi nga xam ne moom lañ àndoon muy plateau bi spécial ñu doon waxtaanee ponk bu am solo mu jëm rek ci ni nga xam ne noonu la ñuy dencee ñi nga xam ne ñoom ñoo fi bàyyi ko wujj suñu borom ni nga xam ne noonu la ko charte réew mi di Sénégal gi ñu nekk tënkee waaye nag mu nekk lool dañ ci liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di tubaa di waa daayira mu muxaddamatul xidma bi nga xam ne ñoom ñooy saytu lu mel ci armeel yi nga xam ne moom moo di Bàqiya nga xam ne ñoom ñu ngi ciy liggéey ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor fànn googu muy waa commune bi nga xam ne genn réeroo di am ci fànn googu ñu ngi doxal li nga xam ne moom la yoonu Sénégal wax waaye it ñu euh, sàmmante li nga xam ne moom la charia wax ci fànn googu nga xam ne euh, lépp rek ñu ngi ko ànd teg ko ci yoon nga xam ne képp ku fa ñëw boo jaaree ci yoon la nga bëgg da ko mën a waaye bu jaarul ci yoon it dañ koy jaarale fa nga xam ne fa la war a jaar ba mbir mi mën a sotti nga mën a denc ki nga xam ne moom nga war a denc ñi am mbégte lool di leen santaat ci ànd ngeen àndoon na ko ñun euh, ci MK TV di Muxaddamatul Xidma TV ak GMT TV Grande Mosquée bu Touba. ci biir réew mi ci bitim réew ñu santaat leen bu baax a baax sant mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci équipe technique bi ci njiital Serigne euh, Djili euh, Bousso ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi ñu dig leen daje incha allah ci yeneen i plateau fii ci Touba Mbacké wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa